confiado. Gente humilde de sangre pujante, con ganas de avanzar y salir adelante. Levanta la cabeza, la mirada al frente, vamos reciclador, debes ser valiente. manera de salir adelante, brindar un buen futuro, por eso el sueño no concilia. Prepara tu carreta, eleva al oración, pidiéndole al Señor derramar su bendición. Sale por las calles y recorre la ciudad, buscando la manera de poder encontrar el pan. Y este se lo gana con esfuerzo y sudor, poniendo su energía para cumplir su labor, buscando esas cosas que para ellos es basura, todas esas otras que para ellos tiene valor, ya sea papel, aluminio, pone en el corazón, llevando una vida con amor y humildad. Jotas posibilidad, como reciclador, uniendo nuestras voces, defendemos ciudad. Reciclador, porque con tu trabajo ayudas a construir un mundo mejor. Reciclador, uniendo nuestras voces, defendemos ciudad. Whoever speaking, I can hear the English. waaw maa ngi lay dégg bu baax jërëjëf yes waaw maa ngi lay dégg bu baax kan la Arona Ah, Abdou d'accord ça va bien d'accord nañu déggante ci whatsapp bi foog naa amuñu droit wax ci kii bi waaw envoyé ma message par whatsapp wala ma envoyé la par whatsapp reciclador y reciclo diariamente para ganarme la vida y conservar el medio ambiente. Reciclar es darle vida a lo que usted desechó. Por eso del reciclaje dignamente vivo yo. Reciclar es un deber para todo ciudadano. Así cuidamos la tierra y a nosotros dan la mano. Yo tengo nervios de acero y buen perfil de aluminio. Yo nunca pelo el cobre All right, I think we should be good to start. Lou, wait a little bit more. Can you explain, Eduardo, how to go to the interpretation channels, please? Yeah. So people can understand how to do that. All right, everyone. My name is Eduardo. I'm with the Global Hack. maa ngi nuyu ñëpp man la Eduardo maa ngi nekk coordonnateur Global X ñu ngi leen di gërëm bu baax am nañ interprété yu nekk di di tekki langue yëpp yi nekk fi uh, ñaari ñaari langue rek lañu amul mënuta mënuta tekki ndax xamuñu nan lañ koy wax mooy bu fekkee ne danga nga bëgg a déglu wolof da dem ci german muy allemand nga mën a déglu wolof waaye bu fekkee nag danga nekk ci beneen mooy ñaari langue yi nga xamante ne mënuñu ko am ci zoom bi moo tax ñu def ko allemand bu fekkee ne da nga bëgg a al olof ñu ñu ngi ñaan bépp interpréter ñu jéem a xool nan lañ koy defee ci seen langage bu ko defee ngeen mën a comprendre bu baax yéen ñëpp li ñuy wax waaw loolu moo tax ñu ut ay interpréter ñu nekk ci suuf di leen di tekkil li ñuy wax waaw noonu lam foog ci kanam ñu tàmm ki nekk india nee na munta dégg li ñuy wax ci inda ci làkkam kon ñu jéem a xool मराठी मराठी चॅनलिंग करायचंय ना मराठी मराठी चॅनल वर करायचंय ना हो मला ऐकायला येते मॅडम तुम माझं बोलणं येत नाही काय ऐकायला बरं बरं बरं I'm not listening the Marathi English channel. That's okay. Yes, it's us. Damo buga hamnan lang ni ngir mëna déglu maraati mu ngi doon xool waaye dafa mel ni xamul nan lañ koy defee Ashwini yaag Samila da da ngeen di war a wax kenn da ngeen kenn rek moo war a wax waruma déglee ñoom ñaar yéen ñi nar a waaw man man maa war a wax ci anglais keneen ki ci des wax ci marathi waaw mu bëgg rek kenn rek di wax marathi keneen ki ci des di wax anglais kon yéen ñaar waru leen waxandoo we can um, go back to the fekkee kenn dafa soxla ndimbal ci dégg li ñuy wax mën na ko wax ñu dimbali ko bala ñoo tàmbale. we can start. waaw bu fekkee ne amul benn laaj mën nañ tàmbale waaw mën nañ tàmbale dafa mel ni de ok jërëjëf kon baax na. <coughs> ñu ngi leen di dalal yéen ñépp di leen di nuyu ci bis bu màgg bi nga xamante ne moom la ñu am nga xam ne depuis ay at mu ngi nii ñu ngi nekk di liggéey liggéey bu am solo dama bëgg rek ñu bàyyi xel ci tey jii li ñu tax boole muy ñu fexe ba amal suñu congrès congrès bi nga xamante ne ni mooy tax ñu taxawal suñu constitution ngir xam ñun lan mooy suñu àq ak suñu yelleef ak lan lañu war a def ba nga xamante ne ni si àdduna bi nga xam ne si lañ dëkk ñu fexe sàmm ko ba dara du ko yaax ah, waaw looloo tax nag ñu ngi dalal ñëpp bu baax a baax a baax di kontaan lool waaw li ñuy tàmbalee nag programme congrès baa ngi mooy nañu wax dalal bi su suñu waxee dalal bi ba pare ñu wax fan la tàmbalee xam ngeen ne bu njëkk dañ daan wax global rec wala global alliance muy tuur bi nga xamante ne moom lañ joxoon suñu mbool mbootaay bi moo tax tey ñu bëgg a xool dem suba bëgg a def projection ci li nekk ci suñu kanam ba nga xamante ne dañuy am suñu constitution mu boole ñu ñun ñëpp waaw ñu fexe ba nga xamante ne nii li ci topp ñetteelu ponc bi mooy suñu suñu tey nan la ñuy fexe ba taxawal ko ba am solo ñun ñëpp nga xamante ne képp koo xamante ni nii da ngay liggéey ci mbalit mi nga gis ci sa bopp waaw ah, jot nañ nag ay ay vidéo yu bari yoo xamante ne ci àdduna bi yëpp kenn ku si nekk di wax sa kontante ak sa Pastef ci lii ñu nar a taxawal waaw ah, nag ñu ngi jéggalu nag duñu am duñu am waxtu boo xam ne dañuy noppalu ngir naan café wala ngir dem ci kii bi dañ ko bëgg a def rek mu dool loo xamante ne ni day continuer waaw li wax tamit ñu nga koy ñu ngi koy sàmm bu ko defee nga xamante ne dañ koy dañ koy enregistré ñëpp mën cee jot muy ci làkk yëpp anglais français espagnol portugais ak langue yëpp nga xamante ne dinañ ko dugal ci suñu YouTube bi dama bëgg aussi xamal ne képp ko nga nga xamante ne mu ngi fii ci tey ci congrès bi tey dinañ la jox envoyé nañ la benn email muy wane yow ne sa participation ak ñu ngi leen di gërëm yéen ci taxaw bi ngeen taxaw ba lii nii tey mën a am ak yombal bi ngeen ko yombal ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax tey jii mën nañ wax ne am nañ lu am solo mooy fexe nañ ba am fukki làkk ak genn yoo xamante ne ni kenn nekk dina am dina mën a déglu congrès bi ci làkkam te du am benn jafe-jafe te ñu ngi ñaan aussi képp kuy wax mu wax ndànk bu ko defee ñu mën a dimbal ñi nga xamante ne nii ñooy tekki li ñuy wax ñu mën a xam li ñuy wax bu ko defee ñëpp mën cee jot waaw bu fekkee aussi yaa ngi ci biir ñu leen di ñaan ngeen taal seen caméra su fekkee mën naa ne aussi bu fekkee da ngeen am laaj mën ngeen ko bind ci chat bi su ko defee ñu xool nan lañ ci tontoo nu mu gën a gaawee so to start uh, now I want to give the floor to Johnson Doe waaw ngir tàmbale nag ñu ngi jox ñu ngi jox ñu ngi jox I think uh, uh, uh, ñu ngi jox ñu ngi jox baat bi Johnson mi nga xamante ne nii moom nekk ci ci ñi lig moom mooy président président wu kon pay Conpay London West People association ak moo nekk aussi président wu coopérative bi nga xamante ne ni moo gën a mag ci acra nga xamante ne ni moom la ñu mujjee tabb kon ñu ngi koy félicité ñu ngi koy ndokkale bu baax a baax ci liñ ko fal ak li mu ñëw fii Lisa jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax kontaan nañ trop ngir toog fii and to chair the first session as well. maa ngi kontaan bu baax ngir teew bi may teew ak jox bi ma jox baat pour ma wax nga xamante ne ni tey ji maa ngi gërëm suñu mbokk yëpp yi nga xamante ni tey ji mën nañu wax ne lu ëpp juróom benn fukk ak juróom ñetti dëkk bokk nañ jiite association bi nga xamante ne ni um, nga xam ne mouvement bi mu ngi tàmbale mbootaay bi mu ngi tàmbale ci mille neuf mille neuf cent quatre-vingt nga xamante ne mu ngi tàmbale Brésil ci mouvement bu tudd Catadores ñoom ñoo njëkk njëkk def li nga xamante ne nii association ñiy liggéey ci mbalit mi ñu booloo doon benn ba mu jógee ñu doon benn mbootaay boo xamante ne dafa wër àdduna bi képp xamante ne ni am nañ am nañ lu ëpp ci juróom-ñeenti téeméeri junne nit ñu bokk ci muy benn mbootaay bu rëy rëy leen di jox benn primeiramente agradecer o momento e a todos jërëjëf yéen ñëpp tamit invitation bi man la Serino companheiros catadores e catadoras do ñu ngi ñaan ñëpp ñu def benn minute de silence pour pour liggéey ci mbalit ñëpp ñi nga xam ne tey mënuñu fee nekk nga xamante ne nii dañ leen di delloo njukkal di leen di gërëm ci liggéey bu am solo bi bi ñu am solo um ñoom ñu ngi ñu leen di xalaat bu baax a baax a baax ci li ñu nar Seliyan Mombe ñu nekk ci ñi nga xamante ne ni ñoo njëkk a taxawal kuréel gu mel noonu fii nii moom moo tax tey ji ñu mën a amal Simon ak Moumbata nga xam ne mooy ay nga xamante ne dañ koo ñàkk mu mu dem Miss Canal tamit moom nga xam ne fii la nekkoon moom mu nekk argentin moom tamit mënu fee nekk tey ñu ngi ñaan ñu ñu ñaanal leen ñu jaay benn minute de silence nga xamante ne dañ leen di delloo njukkal ñaanal leen bu baax a baax ak jërëjëf Okay. Thank you, Severino. No, one yeah, yeah, palma para esses companheiros e companheiras que partiram. E em nome deles, em nome dos catadores do Brasil. ñu tàcc ñooñu ñi nga xamante ne ci seen ak ci turu képp koo xamante ne nii daa ngi ci mbalit mi ci Brésil ak suñu naataango yi nga xamante ne ñu ngi fi tey ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax bëgg naa jox Ali Aline Sol mi nekk Brésil Aline mën nga wax ak ñun nga sànni ci ay kàddu rek maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii tey di liggéey ci mbalit mi jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci li ngeen ñu jox nga xamante ne dinañ mën a taxaw waxtaani man maay Aleni Souza ci mbalit mi laay liggéey man may directeur man man damay liggéey ci mbalit mi man maa ngi yor association bi gën a mag fii ci Brésil congrès bi ñu amal ni lu am solo solo solo la lu am solo la ci suñu liggéey bi ñuy def nga xam ne dañu nar a dooreel mi nga xamante ne nii muy mbégte mu rëy muy mel ni jamaa ci ñun ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ay at ci ginnaaw nga xamante ne ñu dimbale ñu dimbali bu baax ci suñu liggéey maa ngi leen di ji gërëm bu baax a baax a baax ci seen teewaay di kontaan bu baax jërë ngeen jëf jërëjëf Severino Eduardo, o ndax mën ngaa teg vidéo bi ak eh, wéy bi ñu déglu ko. poème la wala musique musique ah musique bi la ah, wéy bi ngay invitación a este audio. La verdad que nos sentimos agradecidos desde Buenos Aires, desde la provincia del Chubut, Argentina. Les enviamos un gran saludo cordial desde Recuperadores Urbanos, desde Argentina Recicla. man maa ngi jógee Argentine maa ngi bokk ci kuréel gi defar mbalit mi foofu ci Argentine waa ñu déglu ñu déglu woy bi ñu ngi dalal woy skipa yépp suñu rakk yi ak suñu mag yu góor yeeg yu jigéen ñi ñun ñi nga xamante ni ñooy xeex xeex bu am solo nañu dem ci kanam ci suñu liggéey di recycler mais ak aussi di defaraat àdduna di defaraat mbir yi di defaraat àdduna di recycler ay bagage di recycler àdduna tamit nañu booloo daan xeex booloo boole suñu doole ngir ñu mën a amal benn àdduna bu bees ñun ñuy liggéey ci mbalit mi nañu booloo xeex nañu boole suñuy doole ci suñu liggéey mm-hmm. ak suñu pas-pas mm-hmm. ñu tàmbale ñu fexe ba daan lépp lu ñuy lor dindi ba dindi ba dindi frontière yi boole suñu doole ñu changer suñu réalité ñu tabax benn àdduna bu bees bu bari jàmm ak ak liberté ñu tabax benn àdduna bu fees dell ak jàmm ñun ñëpp ñu libre nañu xeex nañ xeex ba tabax beneen àdduna bu bees ñun ñuy liggéey ci nañu booloo nañu résister nañu xeex ñu booloo ak liggéey bu tar ngir mën a tabax benn àdduna bu bees lii mooy suñu hymne di suñu e woy nga xamante ne ni fépp fu ñu dem ci Brésil moom la ñuy njëkk woy nga xamante ne ni diñu dinañu dooleel nga xamante ne buñ ko woyee ba pare day doon suñu hymne ñëpp dañ ci kontaan li ci topp nag mooy mooy ñu ñu boole ci àdduna bi yëpp ñëpp boole ko waaw Aline maa ngi lay jox baat bi mën nga continuer kontaan nañ bu baax a baax a baax baax kontaan nañ bu baax ci ngeen mën a déglu suñu im bi ci wéy bi ñun ñoo ko bind vários avanços, vários reconhecimento para nossa categoria. congrès bi dafa am solo pour ñun lool ndax day tax ndax day tax ñu am solo lool suñu liggéey day wane suñu xarañte suñu doole e suñu coono bi <coughs> ñuy def ci ci mbedd mi di liggéey te wéy bi day dëggal loolu yépp te day boole adduna bi yépp Severino ah, mën nga àggale e um booba tey comme dañuy représenter Brésil ñu ngi ñaan Eduardo mu teg suñu poème bi nga xamante ni ñun ñoo ko def Vá em frente, pois atrás é que gente, diz o popular. E quem caminha na linha da esperança arrasta o pé. Képp ku xam doxee ci demal. Képp ku nga dox ni ñii mën nga. Ah, caminhar nekk ci sow nekk ci sow ak mi ngi ñëw ñu recycler fi nga xamante ne ni am na yaakaar waste picker yi dinañ nekk foofu fépp foo xamante ne ni am na mbalit di ngeen gis ñiy liggéey ci mbalit mi forkatu mbalit yi fépp foo ni am na pollution fonkatu mbalit yi dinañ nekk foofu fépp foo xamante ne ni am nañ yaakaar ne mën nañu dund dund bu baax ñi liggéey ci mbalit mi ñoo nga fa fépp foo xamante ne ni mën nañu soppi àdduna bi fonkatu mbalit yi fa dara munta dara munta soppi suñu loxo yi ak suñu jom ngir changé àdduna bi mu gën a baax brésilien yi amérique latine yi ci yaakaar ci turu yaakaar ñu ngi fii du wax ne suñ ko bëggee ñuy for ñu ngi ci ñi nga xamante ne gisuñu ko di ñu gis suñu mbégte mi nekk ci kanam ak suñu suñu yaakaar yi nekk ci kanam ñi nga xamante ne mënuñu gis loolu mënuñu xam nan lañu nara yéen ñi nga xam ne mënu leen gis suñu solo suñu mbootaay mi mu ngi ci kanam ñu nar a booloo defar defar kii bu baax nga xamante ne dañuy boole suñu doole defar àdduna bu bees ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci mbalit mi nga xamante ne ni suñu dignité ci la nekk ci mbalit mi nga xamante nii ci la ñuy defaree suñu àdduna setal àdduna bi yéen ñi nga xamante ne ni mënoo nee a gis suñu solo du ngeen ko mës a gis suñu mbégte ak suñu victoire mu ngi nii ci kanam yéen ñi nga xamante ne bokkoo leen du ngeen ko mën a gis yéen ñi nga xamante ne bokku leen ci mbootaay boobu du ngeen mën a bokk ci suñu eh, mënu leen a bokk ci suñu mbégte mi nekk ci suñu kanam poème bu neex la bu daw yaram um, ñun ñu ngi nekk ci liggéey bi ñaar fukki at ak léegi loolu moo tax ñu mën a defar wéy bi ak poème yi ndaxte dañu xam solo bi nga xamante ne ni suñu liggéey moom la am ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ay ati at ay nit ñu bëree bëree bëri ñoo nekk suñu ginnaaw délégué bu nekk nga xamante ne ni mu ngi nekk ci mbalit mi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mën nga wax ci suñu kàddu ndaxte am solo bu am solo bi ñu am solo suñu organisation bi nga xam ne dafa wër àdduna bi dañu kontaan lool nga xamante ne ni tey jii li ñu dajale muy boole para mim e nga xam ne ci àdduna bi yëpp nga xam ne tey ji pour ñun Alieu ak man bokk ci lii dafa doon loo xamante ne nii day firndeel suñu taxawaay ak suñu liggéey bi nga xamante ni nii waxuma rek ci Brésil waaye ci Amérique yépp day wane ne ñu ngi dox di dem ci ñu ngi dem ci lu am solo sacrifice yi ñu def yëpp ngir suñu njaboot loolu yëpp dafa mel dina fay ndax tey kuréel bi ñu am ni muy lu am solo nan lañ mën a xamee Eva Makowana Silvio Soledad ay tur yu bari yoo xamante ne ni ñu nga ñoo tàmbale liggéey bi ñoom nga xamante ne ni ñoo bokk ci alliance bi nga xamante ne wër na àdduna bi dama bëgga bàyyi benn message yu mbégte benn message yu yaakaar benn message yu yaakaar bu rëy rëy rëy bu ñu am ci alliance bi ñu nar a tawa xabal ngir ci àdduna bi yépp nga xamante ne ni képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci mbalit mi ak liggéey loo mboy ni liggéey ñu taxawal benn mbootaay bu mag a mag a mag ci àdduna bi waaw buñ ci xaar dara jërëjëf jërëjëf Severino jërëjëf Aline ñu ngi leen di gërëm bu baax ci présentation bi ngeen def booba léegi dama bëgg a wane lu am solo nga xamante ne ni ñun ñi am nañ lu ëpp fan nga xamante ne ni am na ay dëkk yu bari yoo xamante ne ñoo bokk ci ñun nga xamante ne ni mooy li ñu amal tey ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax tey dina dama leen di yóbbu ci India fi nga xamante ne ni fala mbir yépp dooree muy fi mu tàmbalee nga xamante ni one of the oldest countries in the world to start building waste pickers organization. mën nañu wax ne India moo nekk dëkk bi nga xamante ne ci àdduna bi moom moo njëkk am association wu ñuy liggéeyee ci mbalit mi nga xamante ne tey ji moo waral nga xamante ne tey jii ñu war a tabaxal benn alliance boo xam ne day wër àdduna wërngal këpp loolu waaye India ñoo tax moo am soo si la tey jii moom lañu nar a jox kàddu gi ngir mu wax ci turu waa India ak ci turu liggéey bu am solo bi nga xamante ne def nañ ko ñu taxawal alliance bu njëkk ci àdduna bi Sila ñu ngi lay ñaan nga taal sa caméra ngir ñu mën laa gis jërëjëf मी भारतातून बोलते सुशीला साबळे ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu ñëpp man la Cecilia Sables maa ngi dëkk India सेवा organisation bi nag suñu mbootaay bi su baay ndax yaa ngi ñuy dégg compañero. hello Cécila. Cécila ndax yaa ngi ñuy dégg. Cécila. त्यानंतर पुण्यामध्ये So Shishila, can you please start एकोणीसशे त्र्याण्णव your ndax mën ngaa tàmbale waat bu baax ndax dégguñ la woon bi ngay commencé sa Sylla हा काय झालं काय माहित नेट जात आहे सारखं Yes, now we can hear you. Go ahead. waaw ñu ngi lay tey ñu ngi lay dégg léegi ñu ngi lay dégg bu baax Cecilia mën ngaa continuer ok waxal dafa mel ni dañu am jafe-jafe ngir dégg Cécila mënuma dégg Cécila xëy na connexion bi moo am problème suñu organisation suñu mbootaay bi ñu ngi ko créé 2008 nga xamante ne ni dañu daje ci daje bu njëkk ci premier benn conférence boo xamante ne ni ci àdduna bi la waroon foofu lañu tàmbalee di daje nga xamante ne ni dafa mujj doon mu wër àdduna bi yépp कॉपरेटिव्हची पहिल्यांदा नोंदणी करण्यात आली त्यानंतर एकोणीसशे एकोणनव्वद मध्ये शेलीगाल इथे ci Sénégal ak association bi tudd bokk jom foofu la foofu la mbir yu dooree tamit bokk jom ci 1997 ci Sénégal ñoom tamit ñu organiser foofu noonu ci mille deux mille deux waa waa Latin American def benn conférence boo xamante ne dañu dajale ñuy liggéey ci mbalit mi yépp deux mille huit nag ci la conférence bi njëkk ci àdduna bi yépp am ci Bogota nga xamante ne ñi nekk ci mbalit mi yépp dañu daje foofu ñoom ak seeni ñi leen di jàppale ci liggéey bi mu amoon fanweeri dëkk yoo xamante ne ni bokkoon nañ ci conférence bu mag boobu ci conférence boobu la la Wayskipper yëpp daje di wax ne dañoo war a booloo organiser wu boobu mu ngi nekk ci comité boobu ci lañu amal benn association bu tudd International Steering Community nga xamante ne ni ba tey mu ngi dox mu ngi tàmbalee ci 2007 ba 2012 bi ñu àggee nag ci 2012 la benn waxtaan benn ndaje boo xamante ne mu ngi global statistic workshop nga xamante ne ni dañuy dajee ngir xool nan la ñu war a liggéeyee ci la ci la ñoom ñëpp daje ngir bëgg waxtaanee seen ëllëg ak seen liggéey nan lañ koy gën a ñoŋalee Okay, I think we are having a few network challenge with Sushila. Um, uh, yaakaar naa ne dañoo am ay jafe-jafe ak Sushila. connexion bi baaxoon moo tax li muy wax mënuñu koo dégg bu baax a baax moo tax tekki bi yof jafe waaw kon Cecilia dafay jéem a wane fan lañ tàmbalee ak euh, date yu am solo yi nga xamante ne ni moo am bi ñu booloo ñu tàmbalee ko ca India pare yeneen dëkk yi fekk leen si muy alliance bu mag a mag a mag nga xam ne dafa wane alliance bi fan la tàmbalee fan la dooree muy ca India ñu xam ne ñoom ñoo ko njëkk def si si ndax mën nga àggale explication yi nga doon def ci alliance bi fan la tàmbalee ak ñan ñoo ci ñan ñoo ci bokk ba bi mu yokk si fii maa ngi maa ngi profité ci utilisation bi ngir bàyyi Cécila mu jéem a xool ndax mën na defar connexion bi uh, Cécila tamit mu ngi am lu ëpp téeméeri Africa, where we ngi ñu ngi jox uh, kii bi Haruna Niass nga xam ne mu ngi nekk Bokujom comme Cécila amut dafa am problème ci ndax Cécila da nga bëgg a da wala ñu bàyyi Haruna mu mu mu wax ba pare. Cécila mënuñ laa dégg. fasila ndax nit mën na koo dimbale ñu xool parce que li muy wax kenn mënu koo dégg ndax kenn mën na mën na dimbale sisila ba ñu mën a dégg li muy wax dafa dafa fay mikrom kenn mënul koo dégg Eduardo ndax mën nga ñu dimbale ñu mëna dégg Cecila ah, dafa tëj mikoroom bi Sophia, please, we need to unmute Sushila. She's speaking and we are not. Uh, Sophia, mba ndax mën nga ñoo jàppale nga nga dindi eh, micro Cecilia bi da ko tëj.

Okay. And she can turn the camera off and maybe the connection is going to be better if without camera maybe. कुठून कुठून बोलू कुठपर्यंत ऐकलं हा हॅलो Johnson. Ndax ndax mën comme comme Cécilia dafa am problème ci connexion bi ndax mën ngaa continuer programme bi Cecilia, go ahead. We can hear you clearly now. Cecilia, mën nañ la dégg léegi daal mel ni mën nga mën nga àggale li nga doon wax. कार्यशाळेत बांगलादेशी सुशिला नाही ग mu ne ngeen mu ne ngeen jéggal ko mu xool fi mu yemoon bëggut a tàmbalewaat fi mu commencé woon daa bëgg a àggale balay waxtu bi di di jeex may leen ko tuuti rek mu xool fan la yemoon दुसरं असं आहे की organisation bi ñu ngi ko créé 2008 ci Bogota ci mbootaay bi ñu amaloon ci àdduna bi yëpp झाली आहे नवीन कमिटी आहे bi ñu paree ñu dem Bangladesh mu am benn organisation bu nekk foofu en 2015 ñoom ñu boole seen bopp def benn coopérative boo xamante ne da leen di dimbale nga xamante ne nii day dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci groupe bi muy organisation boo xamante ne national la ak international maanaam yem na ci Bangladesh mais tamit dafa wër ci àdduna bi yëpp ci seen mbir yooyu ñu tëral nga xamante ne ni dañuy dimbalante dañoo fexe ba ñuy xeex seen àq ak seen yelleef covid 19 bi nag bi mu ñëwee en 2020 mu indi ay tolof tolof yu bari ci seen liggéey ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbalit mi nga xamante ni waa àdduna bi dëkk bi ñu dëkk dañ leen xaw a woyafal xamuñu seen liggéey bu baax a baax a baax ñu am ay jafe-jafe yu bari léegi nag ñu créer benn constitution boo xam ne ci waxtu boobu noonu ndax covid 19 bi ngir organiser tey jii nag organisation boobu ñu amoon tey jii am nañ kayit taxaw nañ dëgër nañ ba nit ñi reconnaître nañ seen am solo bi ñu am solo muy muy aussi lu am solo loo xamante ne nii nga xamante ne lii fépp fi ñu nekk ci mbalit mi jógee ci àdduna bu ñu mën a nekk nga xam ne dinañ mën a bokk ci organisation bi ñu xam ne am nañ seen constitution te tey jii kontaan nañ lool nga xamante ne ni constitution boobu ñu war a defar tey ñu nar ko àggale finaliser ko nga xamante ne ni day doon suñu constitution ñun ñëpp ci àdduna bi yépp संघटना बनवल्या आणि ज्यांनी आम्हाला एवढ्या उंच पदावर नेऊन बसवलेला आहे पुढे ñoom Lucia ak ni nga xamante ne ni ñoo nekk ci ginnaaw Lucia di ñu dimbale nga xamante ne ni constitution bi tey bind nañ ko taxawal ko ba tey ji li ci des mooy rek ñu ñu finaliser ko a ñi nga xamante ne nii ñëpp dimbale nañ ñu ci bind bi ñu bind constitution bi nga yomb yombutoon lu jafe-jafe la woon ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne nii jàpp nañ ci liggéey bi. माझा मला काही माझा आवाज ऐकायला आला नाही तुम्हाला काही अडथळा आला खूप आपण लांब लांब बसलेला. ñëpp ñu nga xamante ne nii. bokk nañ ci liggéey bi nga xamantane ni defaroon nañ ko ci àdduna bi yépp ak dëkk boo munti nekk ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax tey ji nga xamantane ni congrès bi ñu day amal tey nii dina tax ñu xamanteeg ñenn ñoo xamante ne yaakaar nañ ne ci jëmmi jamono dinañ mës a gisee bët nga xam ne dinañ mën a saafante incha allah ñu ngi koy yaakaar bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Cecilia mi nga xamante ne ni mi nga xam ne mu ngi Bogota ak si ci 2012 nga xamante ne ni organisation mu ngi noonu ñu ñu koy wane ci écran bi nga xamante ne ni mooy étape yi nga xam ne am na si suñu organisation bi mu commencé mille 2008 ca Bogota ba tey jii 2019 nga xam ne ñu ngi amal tey jii réunion bi nga xamante ne dañu bëgg mu wër fépp Cecilia jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax maa ngi leen di yóbbu tey ci Africa foofu nga xamante ne ñu ngi am Arona Niass nga xam ne mu ngi dokk bokk jom di président wu bokk jom Arona Arona mu ngi nekk Sénégal muy eh, organisation bi njëkk bi nga xamante ne ñuy liggéey ci mbalit mi ñu mës a ci Afrique de l'Ouest nga xam ne dañuy dañu nañu tey waxal aarona ñu ngi lay ñaan nga nga nga tàmbale a ngi lay déglu jërëjëf Bonjour euh, à tout le monde. Je suis Aaron euh, euh, président de l'association des récupérateurs et recycleurs de Mouros. Donc, euh, de la nous renvoie à une tragédie qui en évidence la vulnérabilité de ceux qui vivent de cette confession. Le 1er mars dans une, en Colombie, 11 récupérateurs furent assassinés afin de commercialiser leurs organes. Donc le 1er mars, nous inclinons devant la mémoire de nos onze en réponse de cette tragédie, et en un dans la lutte pour leurs droits, 34 pays se sont réunis en dans le cadre de la conférence des récupérateurs et ont choisi cette comme journée Sorry, interpreters. You are, uh, simultaneously interpreting at the same time. Please, it's one or the other. Sorry. You are the two of them on the same channel. Uh ah, -huh. Ah, ah. Sorry, for that. Sorry. Um, if you can open your video, that would be really nice so we can see your face. I'm not I'm not speaking. just like the translator of French. Hey Abdul, yes, but I need you to speak in the um, channel, which is the German channel. Oui, bonjour à tout Je m'appelle Aaron euh, président de l'association de récupérateurs et recycleurs de meubles. la commémoration de la journée mondiale des récupérateurs nous renvoie en évidence à une tragédie qui met en évidence la vulnérabilité de ceux qui vivent de cette profession. le 1er mars 1992 dans une interview, c'était de Colombie. 11 récupérateurs furent assassinés afin de commercialiser leurs organes. C'est pourquoi chaque 1er mars, nous inclinons devant la mémoire de ces 11 récupérateurs disparus. En réponse de cette tragédie, en marquant un tournant décisif dans la lutte de leurs droits, 34 pays se sont réunis en 2008 dans le cadre de la conférence mondiale des récupérateurs et on choisit cette date comme journée mondiale des récupérateurs. Cependant, malgré de la journée mondiale des récupérateurs, de nombreuses difficultés en bas de l'industrie du recyclage, les récupérateurs, en collectant et à leurs sources sont aujourd'hui les principaux fournisseurs de matières premières post-consommation. Selon les chiffres de l'initiative régionale pour le recyclage, inclusif, 50 à 90 des matériaux utilisés dans l'industrie proviennent des récupérateurs. Ceux qui reçoivent toutefois que 5% des profits générés par ce cycle économique dont ils font partie. Ce chiffre alarmant s'explique par la faible participation des récupérateurs dans les politiques de gestion des déchets, les lois défaillantes en faveur de leur travail et le caractère informel de leur profession. Ce travail pénible, mais très important à sa journée mondiale, célébrée le 1er mars journée pendant laquelle les récupérateurs cherchent à valoriser leur rôle et à mettre en place dans les pays de la région des politiques d'inclusion, de la gestion des déchets et la protection de ces acteurs principaux. Et nous avons à nous mobiliser dans le monde ah. entier pour exiger nos droits ah. d'accès aux et d'être respectés et reconnus comme les importants contributions que nous apportons la planète. Nous avons préparé plusieurs vidéos. Nous sommes donc heureux. Et si vous pouvez les voir plus tard, compilez, dans notre site de Global Les bénéfices générés par les récupérateurs sont multiples et ils ont notamment un impact positif sur les économies. Local, la création d'emplois et la réduction des dépenses municipales de la gestion des déchets. Le récupérateur rend aussi un précieux service contribuant à préserver l'environnement et la santé publique. Tous les travailleurs du secteur informel partagent la réalité suivante. Ils n'ont aucune protection ou sociale. Bokudjom, une organisation locale de récupérateurs et récupératrices de Mbobos, Sénégal, est née d'une volonté affirmée dans les années 90 pour lutter contre la stigmatisation et l'inclusion de la délinquance. Actuellement, Bokudjom compte plus de 1600 adhérents, dont 47% de femmes et de bonne représentation dans les instances décisionnelles. Notre alliance mondiale, notre voix à l'international, notre fierté locale et régionale, Vive l'Alliance internationale des récupérateurs et récupératrices. Je vous remercie. Aruna. Nias is the president of National Association of Waste in Bokdium, Senegal. Aruna is taking us through the, from the very beginning, the stigmatization that we have on waste pickers, which leads to the killing of waste pickers in Colombia uh, in 1992. This highlights the importance of waste pickers to fight together to be one and united and form alliance uh, to fight for their rights So in the very beginning, we have the motto that says, if there are no frontiers for those who explored it, there shouldn't be for those who fight. This is our motto from the very beginning. But since the very first day, first match uh, of the year, we started developing a new motto that says there, waste speakers, recycling without waste speakers is garbage and is the fact that without waste speakers, there will be no recycling. Thank you, Aruna, so eh, very much for this important message. Now, um, we have more allies, which uh, have been with us from the very beginning of the building of the alliance. And this alliance is going to give us eh, more of solidarity messages. So here we have Mati Chen from WIGO, We have Bernardo Toro from Colombia and Christy Kett from Gaia. And also we have Cardinal Michael from the Vatican. So comrades, you have the floor. Please take us through and give us our solidarity messages. Thank you. My name is Marty Chen. I am a co-founder of WeGo and led the organization for its first. man maa ngi gërëm ñëpp man la Marty Chen ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ndax yàlla dimbale nañu ñaar fukki at ba léegi ñu ngi teewe liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii liggéey ci mbalit mi yëpp ñu ngi koy def. nga xamante ne ni 2006 ñu ngi fekkee ñu mën a amal ab fond boo xamante ne ni dañu dajale ay xaalis ñëpp bokk ci nga xamante ne ni dañuy dimbale association bi nga xamante ne ni boobu biñ koy créer Bogota fanweeri dëkk ak ñeent ñoo ci bokkoon mu nekkoon mbir moo xamante ne ni ñëpp bégoon ci ñëpp kontaan ñuy fecc di wéy ci conférence bi yépp ndax ni ñu mënoon a amalee loolu noonu nga xamante ne tey ji képp kuy liggéey ci mbalit mi conférence boobu ñu amal Bogota tax na tey ñu xam lan mooy suñu àq ak suñu yeleef nan la ñuy mën a fexee ba nit ñi xam ne ñun tamit dañu am ak ak yeleef depuis mille 2008 dañu commencé loolu nga xamante ne nii dañu def ay formation ci mbootaayu ñuy liggéey ci mbalit mi yépp formation yooyu noonu nga xamante ne 2009 ci global alliance bi nga xamante ne nii créé nañ ko nga xamante ne man mii dem naa ci organisation yu bari bari ci àdduna bi teewe fa nga xamante ne nii dem naa Colombia dem naa India dem naa South Africa dem naa fépp weer a ngi ni ci ginnaaw rek maa ngi jugee ci benn nemmeeku boo xamante ne nii dañ doon nemmeeku ñi liggéey ci mbalit mi so dama dama dama kontaan loolu te dama dama kontaan dama ànd ak mbégte dama ànd ak sawarte nga xamante ne nii seen constitution bii ngeen nara amal tey jii dina tax ba tey jii ngeen am benn organisation boo xam ne dafa wër a àdduna bi yëpp ñëpp nekk ci te maa ngi leen di ñaanal maa leen di ñaanal lu kawe seen njort yéen ñëpp nga xamante ne ni seen alliance bi dina indi ay mbégte yu rëy jërë ngeen jëf ndokkale mu baaraak bu baax a baax a baax ci yéen ñëpp Un saludo a todos los recicladores del planeta, a todos los recicladores que ya han emprendido la gran tarea de construir la Asociación Global de Recicladores. Un saludo desde Colombia. En aquí en Bogotá, recicladores de todo el planeta, de diferentes países del mundo, tomaron la decisión de convertir el oficio de reciclador en una profesión. Eso los llevó a buscar nuevos modelos de organización, nuevos modelos tecnológicos, nuevos modelos de, procesamiento, comenzar a pensar en, procesar los residuos sólidos de una manera rentable, a reconocerse los unos a los otros en América Latina. Ahora entramos en una etapa siguiente y es como todos los recicladores de los diferentes países de América, de Asia, de Europa y de África, van a construir juntos la red global de reciclaje, la Asociación Global de Reciclaje con un propósito, cuidar y proteger la casa. No es posible para los 8 mil millones de personas que tuvimos en esta casa común llamada La Tierra, sin la participación de los recicladores, porque son ellos los que van a garantizar los elementos básicos para hacer una economía regenerativa, una economía circular y poder cuidar el planeta. Y al mismo tiempo, son ellos los que van a mostrar cómo al, vincularse a la cadena de nueva de ver el trabajo y el mundo sobre es un trabajo la profesionalización del reciclaje, ahora empezamos una nueva A ver si hacia el la la association globale de recycladores es una tey ji ñu ngi nii ci beneen beneen yoon boo xamante ne nii nga xamante ne tey ji maa ngi gërëm ñëpp ci liñu nara taxawati yal nañ ci am ndam bu baax a baax a baax a baax Dearest compañeros y compañeras, comrades and colleagues in the struggle for waste worker rights. sama mbokk yi nga xamante ne ni ñu ngi ci liggéey bi tey jii dama kontaan bu baax a baax a baax nga xamante ne ni ñu ngi amal tey jii suñu constitution bu bees bi nga xamante ne fukki at ak ñeent ci ginnaaw ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ñun ñëpp man mi nga xamante ne ni man maay ordinateur ci àdduna bi yëpp bu gaaya ñu ngi ñu ngi leen ndokkale ci liggéey bu am solo bi ngeen di def nga xamante ne ni ñiy liggéey ci mbalit mi yépp ci àdduna bi ñu ngi laaj ñu ñu ñu dooleel leen ñu reconnaître leen ñu xam seen àq ak seen yelleef te li nekk ci suñu kanam foog naa ne mooy li nga xamante ne ni lu am solo la nga xamante ne ni changement climatique bi nga xam ne soppeeku bi jaww ji soppeeku suñu liggéey da cee am solo lool seen liggéey yéen surtout da ci am solo nga xamante ne ni changement bi moo nekk ci ginnaaw mooy nga xamante ne dañoo bëgg ñiy liggéey ci mbalit mi ñu privatiser ko nga xamante ne ni day doon benn engagement communautaire boo xamante ne ni dafa am solo ñu bëgg yéen ñëpp ñi nga xam ne yéenay partenaire mouvement bi kon ci turu Gaia maa ngi leen di bëgg wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ne nii yéen da ngeen a am doole lool jërë ngeen jëf maa ngi yaakaar ne at yi nga xamante ne nii mu ngi suñu kanam te ñu naat cee liggéey dina doon an yu année yu baax a baax a baax ci ñun ñëpp jërë ngeen jëf sharing of this very uh, difficult uh, first uh, session. Just for you a Brazilian poetry, a Brazilian music, French uh, speaking way speakers from Senegal, Marathi way speaker from uh, uh, from India. ñu ngi ñëpp bu baax a baax a baax tey jii nga xamante ne nii fexe nañ ba am lu am solo mooy am nañ ay interprété ci àdduna bi yëpp comme Sénégal olof bi. ak espagnol portugais day ji ñu ngi jéem a dalal seni seni mi nga xamante ne ni moom mooy secrétaire in the country. She's also a reluctant secretariat. And the great news uh, for you is that she recently formed a Abdu. organization, a, uh, bi dafa baax ma bàyyi la nga àggale Abdul yaa ngi may dégg uh, su fekkee sa bos baaxul nga wax ma ko waaw ah. eh, Gracias a todos los presentes en este día tan especial e histórico para nosotros los recicladores. Eh, quiero empezar diciendo que éxito, este ha sido un exitoso proceso importante para poder llegar a esta constitución mediante unas reuniones frecuentes que hicimos por Zoom eh, para poder llegar este día hoy. Y para eso eh, queremos conocer cómo se dio este proceso y tenemos eh, de la elaboración y discusión de este documento llamado Constitución, quiero invitar a nuestras compañeras Josefa Marín, recicladora de Surware Camp en Nueva York, junto a Pat Orr, coordinadora del proyecto sobre negociación colectiva en economía informal de WIGO. Bienvenidas compañeras, les cedo la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes, la hora, donde ustedes estén. Y mi nombre es Josefa Marín. Uh, soy aquí de, New York, específicamente Sure Weekend en Brooklyn. soy una recicladora, igual que la compañera, y pues. Eh, Assalamualaikum. Pues, Se está haciendo hoy el. maa ngi bu baax a Socefa di wax ndokkale ñëpp nga xamante ne lii ni doon na luñu xaaroon te yaakaar ko man lan laa wara wax li ñu def yëpp ngir tabaxal constitution bi constitution bi problème la ci ñoom para mí esto fue algo nuevo que yo no, no idea cómo, cómo esto iba a suceder, pues porque y me dieron la oportunidad para aprender ustedes por primera vez, sentarme a una computadora en los tiempos de que estuvimos en cuarentena y gracias a la compañera Sole, Samuel de África, Prispoli, Hashar, y ahora de momento no me recuerdo los demás nombres, que gracias a ellos eh, más a liderar mi, aquí en Sure eh, mi gente, mis recicladores, y pues espero seguir aprendiendo más de ustedes y, les cedo la palabra a los demás mis compañeros que quieran hablar. Muchas gracias y disculpen. Adelante, compañera Pat. Good afternoon. Uh, thank you, Josefa, for uh, starting to explain how we uh, did this. Um, I'm Pat Horn from uh, Durban in South Africa. And um, Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñëpp man la Pat Horn maa ngi nekk uh, South Africa. Um, early in 2020 Wego. Um, to basically work on drafting a constitution. nga xamante ne nii ñu ngi doon jéema fexe bind benn constitution ci 2021 nga xamante ne ni jéem nañoo fexe defar benn boo xamante ne brillant la woon nga xamante ne ni day jëmmal constitution boo xamante ne nii dañ koy bokk ñëpp ci àdduna bi yëpp nga xamante ne nii day doon benn constitution boo xamante ne nii day baax ci ci fépp ci àdduna bi ñëpp mën cee bokk waaw loo loolu nag comme ni ngeen koy gisee nii ci constitution bi ci tableau bi di feeñ ci ci écran bi and produced a first draft of the Constitution uh, in July dafa am ay ñenn ci association wu uh, ñiy liggéey ci mbalit mi ñoo xam ne dañu njëkk a daje ngir mën a defaral benn benn constitution mooy nekk brio bi njëkk bi nga xamante ne ni moom la ñu defar nga xamante ne ni dañoo jéem fexe ba nga xamante ni dana doon loo xamante ne nii luy luy luy jëmmal la ñëpp ñi nga xamante forkatu mbalit lañ ay recycleur leen ay forkatu kanet lañ ay buujumaan lañ nga xamante ne nii dañu nekk ci organisation bi fexe ba nga xamante ne constitution bi buñ ko defaree dina mën a baax ci dëkk yëpp ci àdduna bi Nigeria Argentina Argentine loolu moo tax ñu defaat beneen euh, bind ñu soppi tuuti muy deuxième brouillon bi nga xamante ne nii ñaareelu brouillon bi nga xam ne defar nañ ko ci ci ñu ngi ko defar ci décembre ba avril après mu amaat beneen bu ñu defaraat muy ñetteelu bind bi nga xamante ne ñu ngi ko defar ci diggante weeru mai ak juillet nga xamante ne nii Sénégal Kenya Argentine nga xamante ne délégué yi nekk foofu daje nañ waxtaan nga xamante ne nii ci mai la woon deux mille vingt nga xamante ne nii dañ ko dañ ko tekki ci làkk yu bari nga xamante ne nii képp ku nekk ci àdduna bi dina ko mën a xam xam lan la ñuy wax ci biir bi nga xamantene ni ci ñeenteelu biriyon bi nga xamantene moom lañ def ñu def ko ci auguste ci weeru juillet août ba septembre 2022 ci weer bi ñu nekk nga xamantene ni dañoo boole ñaari biriyon yi njëkk ngir mën a am benn constitution boo xamantene ni mooy doon bi mujj which was ready by nga xamante ne nii eh, constitution bi mujj ñu ngi ko bind ci bi weeru juillet bi di jeex nga xamante ne nii dañoo boole ñaari eh, birion bu njëkk bi ak birion bi ci topp boolante ko xool lan moo ci baax ak lan moo ci bon nga xamante ne dina mën a appliqué wu ci dëkk yëpp yi nekk ci àdduna bi nga ni ci tàmbale weeru ut bi nga xamante ne ci ci auguste bind bu mujj bi nga xamante ne ni moom lañu def nga xamante ne ni tey ji mooy doon mooy doon bataaxal kayit bi nga xamante ne ni mooy mujj nga xamante ne ni ñëpp d'accord nañ ne kayit bu baax la ngir ñu mën koo def ci suñu constitution nga xamante ne ni corrigé nañ ko xoolaat nañ ko jàngaat nañ ko bu baax a baax. Uh, edited and translated into uh, nine different languages. nga xamante ne ni tekki nañ ko ci juróom-ñeenti làkk yu bokkul ngir ñëpp mën koo xam lan lañ wax ci biir. Working Committee, which is going to start admitting the affiliates um, according to constitutional procedures of the constitution which has just been uh, adopted. Um, nga xamante ne tey jii moom moo waral suñu daje fii nga xam ne dañoo war a nangu tey ne constitution bi moo doon suñu constitution ñu ñëpp nga xamante ne nii ci congrès bi ñu amal nii nga xamante ne nii dinañ tabb ñi nga xam ne ñooy jiite organisation bi uh, very interesting that we managed to do it mainly virtually. And uh, personally, I was really impressed with the work of the uh, Constitution Committee. ñu wax dëgg rek man liggéey bi nga xamante ne ñëpp def nañ ko ci ba amal lii daf ma yéem lool nga xamante ne ni dama ci kontaan lool lool nga xamante ne ni tey fexe nañ ba mën a amal lii tabax ko ba mu toll fii tey nga xamante ne desul ludut ñun ñëpp ñu adopté ko. Um, mu nga xamante ne ni ñu ngi ko tàmbalee ci suuf ba jëm ci kaw ñu ngi gërëm ñépp communauté bi ko defar ak ñi ci jàpp ñëpp ba nga mën a xam ne tey jii bind nañ benn constitution boo xamante ne nii bu am solo la nga xam ne dina dooleel képp kuy liggéeyee ci mbalit mi ñu ngi gërëm ñëpp te di leen ndokkale bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi jërë ngeen jëf. por cortar, contarnos en poco tiempo. jërëjëf Josefa jërëjëf Pape nga xamante ne ni expliqué ngeen ñu ndax yéen a may dégg bu baax. por por contarnos en poco tiempo el proceso que se dio. ñu ngi leen di gërëm bu baax yow nga xamante ne ni construction bi nan lañ ko tabaxe nan lañ ko defaree ba mu àgg fii nga xam ne nekkul ne dañoo jékki-jékki rek bind dara teg ko nga xamante ne yombu toon am na fu bari fu mu jaar ba bala moo agsi fii te ñu bari kenn ku ci nekk laaj lañ li ci xalaat nga xamante ne tey ji tey nag agsi nañ ci fi nga xamante ne ni mooy fi gën a neex fi nga xamante ne ñëpp moom la ñu yàkkamte mooy dinaa leen won benn vidéo nga xamante ne mooy doon préambule mooy ndorteelu constitution bi ci vidéo bi di ngeen gis Eh, ñiy liggéey ci mbalit mi yëpp nga xam ne mënuñoo woon a teew tey ci kii bi seen message yi ñu leen di envoyé di doon ay message yu mbégte ak message yu ndokkale jërëjëf no doy paso al video de, de preámbulo waaw dañu war wane wane vidéo bi wane préambule bi nga xamante ne ni liggéeykatu mbali di ñoo ko def waake ñun forkatu mbali di recycleur buujumaan buubkatu mbale ni nga xamante ne dañoo boole ci suñu àdduna bi nga xamante ne lu yaatu la ngir bëgg a suñu waxtaan ak suñu doole ci ngir tabaxal constitution bi nga xamante ne moom lañuy waaj a adopté te at yu bari ñun ñu ngi for ci biñ koy tàmbale boobu amul benn organisation kenn jàppale wuñ ñun rek ñoo ko doon def di for mbalit bi tey jii nag ñu xam ne jot na ñu dajaloo ñun ñëpp jéem a xool nu ñuy mën a liggéeyee nga xamante ne nii dinañ am payoor yu baax liggéey bu baax dinañ am àq ak yelleef constitution bi nga xam ne ni ñu ngi koy waaja ku def suñu liggéey dafa jëm ci xeex suñu démocratie nga xamante ne nii dañ ñuy yemale ak bépp liggéeykat ñu reconnaître ne suñu liggéey bi liggéey bu am solo la ci àdduna bi nga xamante ne nii dañuy am suñu liberté am suñu ak ak suñu yelleef bu ñu boolee ñu am légitimité maanaam ay kayit yu wóor yoo xamante ne ni ñëpp a ñuy reconnaître ne ñun ay liggéeykat la yu am solo yu munta ñàkk transparence ak honnêteté mooy li nga xamante ne nii mooy mën a jëmmal boole ak yem ak justice bi nga xamante ne nii moom la ñuy revendiquer te loolu pour mu am il faut ñu toppatoo suñu àdduna bi nga xamante ne nii mooy fi ñu dëkk ñu war koo sàmm war koo defar ba nga xamante ni ñu ñëpp dinañ ci mën a jëfandikoo te aussi ñu ngi ñu ngi jëmmal simplicité ak yemale nga xamante ne nii nga xamante ne ni li ñu bokk ñëpp mën cee yemale ci constitution bi nga xamante ne ni mooy kii mo moom lañ nar a kii serta persyaratan pendirian organisasi struktur koordinasi organisation bi muy organisation bu am solo nga xamante ne ni dina jéem a jëmmal lépp lu nga xamante ne ni soxla nañ ko mooy ñun mi nga xamante ne ñuy liggéey ci mbalit mi ak fépp fu ñu bàyyeekoo ci àdduna bi dañu ñu ngi ñu ngi engagé wu nga xamante ne nii dinañ am dundu bu baax dinañ respecté suñu àq ak suñu yelleef organisation bi tamit dina fexe ba képp koo xamante ne nii yaa ci mbalit mi ci àdduna bi nga mën a jëriñoo ci li ngay liggéey te tamit nga am pas-pas ak sañ-sañu mën a wax ne lii mooy sama ax ak sama yelleef te ñu jox la ko képp fépp foo mënte nekk ci àdduna bi jërëjëf jërëjëf ñu ngi gërëm suñu suñu suñu naataango yépp nga xamante ni nii bokk nañ ci vidéo bi nga xamante ne nii fexe nañ ba ñu defar vidéo bu mel nii nga xamante ne nii mooy liy ubbi liy ubbi congrès bi nga xamante ne nii moo ñu taxa taxaw fii nga xam ne dañu nar a amal suñu constitution bi maa ngi bëgg a jox kàddu gi Carolina Palacio ak Pablo Emason ak Kabir Arora nga xamante ne ni ñu ngi ci liggéey bi kenn ki mu ngi nekk ci Global rek di liggéey bu am solo Pablo moom mu ngi nekk ci wàllu communication ak xarala bi Eh, Kabir mu ngi nekk coordonnateur bu ASI ci global rek waaw ñu ngi leen di jox kàddu gi yéen yéen ñëpp ah, Kabir ñu ngi lay jox kàddu gi jërëjëf ñu ngi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax now Carolina Pablo liggéey nañ liggéey bu bari we present the constitution agreed by the waste pickers from different parts of the world. dañ leen di présenter tey jii constitution bi nga xamante ne nii weskipé yi nekk ci àdduna bi yëpp ñoom ñoo ko ñoo ko bind ñaa ngi jox Caroline ngir mu présenté ñu constitution bi waaw ñu ngi gërëm ñëpp jëf Kabir constitution bi nga xamante ne nii moo nekk ni workers movement in our home countries next slide please kon ñu ngi leen di wax ngeen jox ñu beneen slide bi xaara ma ma ma jàngal leen lan moo nekk ci page bi njëkk ci ci constitution bi nga xamante ne nii li njëkk mooy préambule bi mu ngi mu ngi noonu nga xamante ne am nañ neem bi comme ni ngeen ko gisee lan mooy suñu àq ak suñu yelleef nan lañ ko jéem a jëmmalee ci wàllum koom ak amendement yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ak nan lañu lan lañu lan moo ñuy xaar ak lan lañu war a def ak lan moo nekk ci suñu kanam loolu yëpp moo nekk ci biir léegi suñu tur bi ak ak melokaan bi nga xamante ne ni mooy Pablo ndax mën nga ñoo wax lan moo nekk ci eh, page bi topp ci constitution bi Pablo dégguñ la eh, hello ndax yéen a may dégg waaw ñu ngi lay dégg eh, waaw nañ nañu waxtaan ci page bi ngeen gis nii ci écran bi mooy suñu tur mooy tur bi so nga xamante ne ni alliance bi dañ ko defaraloon the Latin American network of way speakers raised the issue that the word global is related. ni ñu ko eh, njëkkoon ni ko njëkkoon tuddee mooy global rek léegi ñi nga xamante ne nii ñooy liggéey ci mbalin mi tey ñi nga xam ne ñoo jiite association bi nekk Indien wax ne tur boobu dañ ko war a changer ndax global. moo ñu changé global bi def ko international parce que ngir ñu ñoom global ëmb ñëpp bu ñu waxee global mën na bañ a ëmb ñëpp mais bu ñu waxee international ñëpp dinañ ci gis seen bopp looloo tax ñu changé tur bi nga xam ne mu ngi nekkoon global alliance of Peacekeepers léegi nag ñu def ko international alliance of Peacekeepers maanaam kuréel gu ëmb forkatu mbalit yi wala ñiy liggéey ci mbalit bi ci àdduna bi yëpp voice speakers uh, view uh, eh, their work as an intersection of environmentalism and labor. And to reflect that intersection, voice speakers, uh, the founders of the International Alliance of Voice Speakers, mandated that eh, the color of the logo should be green. With, léegi nag ñu ñëw ci melokaan bi maanaam couleur bi couleur bi tamit gis ngeen ni mu meloon dafa meloon ne dafa orange léegi nag dañ ko def mu doon couleur bu netex maanaam werte lañ ko def parce que dafa am ñu bari ñoo xamante ne nee ñu werte dafa am lu muy lu muy lu muy lu muy tekki muy naataange waaw bi ñu bi ñu changé tur bi tamit ñëpp ñëpp d'accord ci place the, the, the international of alien speakers in many languages like Spanish, Portuguese, tamit, French. English. Eh, constitution bi def nañ ko ci ci ci yu bëree bëri espagnol français anglais eh, bengali def nañ ko comme ni ngeen ko gisee noonu ci làkk yooyu noonu yëpp def nañ ko constitution bi nga xam ne dina ñëpp dinañ ci mën a jot nu mu gën a yaatoo. kon nag euh, joxaat ñu li top ci constitution bi nga xamante ne ni day jéem a wax lan mooy suñu objectif ak lan lañu lañ la bëgg ñu ngi jéem a wax ñëpp nag ne ñëpp ñu ngi wax nag ne for interpreters to be able yes. to hear. Yes, and sorry for my comrades in, Argentina hearing me in my horrible English. <laughs> yeah. So here we have clause two, which goes through the aims bi eh, eh, li ngeen di gis nag mooy eh, ñette ñaareelu ñaareelu page bi nga xamante ne ni day day wax lan mooy suñu objectif ak lan lañu bëgg am nga xamante ne mooy tabax ak dooleel suñu suñu suñu capacité ak suñu leadership ci ay organisation bi nga xamante ne dañuy liggéey. ci ay stratégie yoo xamante ne ni dañuy gën a dooleel nga xamante ne dinañ ñu mën a dégg dinañ ñu mën a nangul te aussi dinañ mën a xam suñu kàddu fan la jëm waaw li ngeen di gis noonu yëpp mooy suñu objectif yi waaw mu ngi noonu mu ngi nekk ci fukki fukki objectif ak ñett comme ni ngeen ko gisee noonu management and recycling systems. Further, the Alliance will create awareness about wastemakers' work at various levels, local, national, and international. The Alliance will build an information repository about the number of wastemakers across the world and their situation and advocate for healthy, safe, secure working environment for wastemakers' work. Next slide. waaw constitution yooyu ne mu ngi noonu objectifu objectifu ndaje bi mu ngi ni nga xamante ne ni dañuy fexe ba ñun ñooy doon ñiy jiite fépp fu ñuy waxee affaire mbirum euh, mbalit mi mbirum recyclage nga xamante ne ni waste keeper yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbalit mi ñoom la ñuy jiital alliance bi tamit day jéem a fexe ba nga xamante ne danañ xeex discrimination danañ xeex xoqatal ak euh, jafe-jafe yi nga xamante ne ni ñu ngi ko war a am Waste Pickers International aims to fight for the waste pickers' rights in partnership with trade unions and other organizations comprised of workers in the popular economy or for or informal. Comme ngeen ko gisee noonu waste picker tamit ñu ngi liggéeyal ay yeneeni organisation yoo xamante ne ñu ngi leen di dimbale ay université ay institut de recherche yoo xamante ne ni dañuy saytu nan la ñuy recycler mbalit mi ak ay ay xarañceef ak ay xam-xam nga xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci ci wàll boobu beneen beneen beneen page bi ci topp ñu ngi ci ñetteelu page bi nga xamante ne ni mooy wax tey nga xamante ne tey ji dañuy dañuy wax ñun si lan la ñuy liggéey nga xamante ne nii ñi nga xam ne nii ñooy for mbalit mi nga xamante ne nii dinañ leen dimbale ba nga xamante ne du am benn ségrégation du am benn jaay nga xamante ne nii segregation sorting and sale nga xamante ne nii day am collection ségrégation saytu ak jaay bi process boobu nga xamante ne nii lépp ci lañu ne such as itinerant waste pickers informal semi formal waste collectors nga xamante ne ni recycleur boo mënti doon nga am sa association nga am ay kayit wala amoo kayit wala nga xam ne ngay liggéeyal sa bopp ñëpp ñu ci biir Can we go to the next slide? The type of organisation. bi ban façon organisation la. waa li mën na nekk local mën na nekk national mën na nekk régional nga xamante ne nii day respecté lii nii di bëgg a ñëw maanaam dañuy nekk démocratique ñëpp a ciy bokk ñëpp la ñuy boole képp ku bëgg doon membre mën nga doon membre nga am association wala nga bañ a am association nga am coopérative nga am tur wala nga amoo tur wala ngay liggéeyal sa bopp ñëpp mën nañ cee bokk must principally represent informal waste. da nga war a aussi représenter ñiy liggéey ci mbalit mi nga xamante ne dañoo nekk secteur informel bi da nga fexe aussi ba nga xamante ne nii duñu stigmatiser ak yi dinañ dooleel seen dundu socialement économiquement seen koom-koom ak yépp da nga leen a ñi nga xam ne ñoo bokk ci association bi beneen section bi ngeen di gis ni mu ngi mu ngi nekk ci ñan ñooy jiite association bi ñan ñooy jiite alliance bi mooy congrès bi nga xamante ne affilié yi dañuy nekk téeméeri membre su fekkee ne danga am lu ëpp téeméeri membre ak junne membre yow di nga am ñaari délégué bu fekkee da nga am benn membre ba téeméeri membre benn délégué ngay am bu fekkee danga nga am junney membre ak benn ak juróomi junne yow di nga am ñetti délégué su fekkee nag association dafa am juróomi junne membre yow di nga am ñeenti délégué waaw noonu lay demee su fekkee ne dëkk bi nga kiyee dafa am ay instance yoo xamante ne nii ay eh, instance association nationale la délégué yi mën nañu bokk ci organisation bi nga xamante ni sa dëkk la ne su fekkee nag amoo ay association nationale nag tey jii mën nga mën nga créer sa association nationale locale nga bokk ci alliance internationale bi il faut nga am cinquante pour cent délégué yi nga xamante ne nii dañuy nekk ay jigéen nga xam ne ay jigéen la ñuy nekk du nekk ñoo xamante ne nii dañ naan gisuma sama bopp ci jigéen gisuma sama bopp ci góor il faut ñu reconnaître ne ñoom ay jigéen lañ te ñooñu il faut ñu nekk xaaju sa membre yi maanaam dañuy yemale góor ñi ak jigéen ñi the historical work of organizing member based organizations at the national level After the multiple rounds of consultations and consensus, point five was written. It represents the spirit of the network. That is, a lot of these decisions, which are sensitive in nature, need to be taken after thorough consultation. Consensus should be our first choice. Members also showed pragmatic. ñi bokk ci association bi tamit il faut ñu joxe wane benn xarañceef boo xamante ne ni dañuy mën a bokk ci liggéey bi We have a lot of work ahead, including creating a validation procedure. am na liggéey bu bari bu ñuy xaar ci kanam nga xamante ne nii dina fexe ba lii ñu liggéey nii nan lañ koy mën a jëmmalee ba mu gën a baax. consensus and consultation is seen in the process. now coming to the seven point ngir ñu mën a amal il faut ñu diisoo di waxtaan ñu boole ci ñëpp nga xamante ne kenn ku nekk da ngay am sens wax sa xalaat ak sa ni nga bëgg ñu doxalee réew mi. ñu bëgg ñu doxalee alliance bi is an In this point, one can observe that Wastepicker's alliance recognize the slide bi ngeen di gis nii ci ci écran bi muy li nga xamante ne nii lu am solo la nga xamante ne alliance bi noonu la nar a doxee alliance bi nag ni la nii la war a doxee muy muy lu am solo based on various gendered identities is recognized, tolerated. The difference based uh, ba the nga xamante ne nii moom nee na moom gisul boppam ci jigéen ak gisul boppam ci góor mën nañ koo bàyyi mu bokk ci ci association bi. An acknowledgement of differential oppression as intersectionality. Next nit ki nekk. ci ci sexualité am ko ci jugé ku mu neex nga bokk fi nga bëgg a bokk su la neexee nga doon jigéen ne bëgguma reconnaître ma sama bopp comme jigéen te loolu tamit association bi dala koy nangul waaw ñi nga xamante ne nii nag ñoo nar a jiite alliance bi muy exécutif conseil bi nga xamante ne ñu ni ngeen koy gisee nii ci écran bi noonu la nar a noonu la nar a tëree dina am euh, président vice président trésorier dina am tamit euh, secrétaire général dina am aussi région bu nekk ki fay représenté représentant yi tamit mën na jugee fu nekk ci àdduna bi te ba tey tamit lu am solo mooy il faut jigéen ñi nekk cinquante pour cent loolu mënul ñàkk mooy lu lu a néew that still has the former uh, name of this organization, Global Rec, to read the other parts of the Constitution uh, that we couldn't cover today due to time constraints of this event. Ah, lépp loo xamante ni nii wax nañ ko tey ji wala ñu fàtte ko di ngeen ko mës di ngeen ko mën a gis tamit ci suñu suñu page YouTube bi nga xamante ne mu ngi tudd ba tey Global Rec di ngeen fa mën a dem ngeen xam li nga xamante ne nii leerul ci seen bopp dinañ ko dugal foofu incha allah. Ah, li si topp nag mooy ngeen gis ni mooy amendement yi mooy li nga xamante ne ni mooy si eh, ngeen di gis noonu ci ci slide boobu noonu mooy nga xamante ne ni defar nañ ko ci octobre 17 le 17 octobre lañ ko lañ ko defar comme ni ngeen ko gisee noonu ci ci écran bi eh, the picture but if not uh, maa ngi xool ba xam dinaa mën leen a wan dinaa leen mën a wan nataal bi nga xam ne ngeen gis ko eh, benn benn nataal la bu ñu jël nga xamante ne nii dañu waxtaan lu bëree bëree bëri da ko am but mainly shows loolu rek mooy wane ne constitution bi du du ay bind yoo gis yoo xamante ne ni jéem nañ fexe ba rafetal ko defar ci ay image nga xamante ne dina neex a dina rafet aussi soo koy xool waaw loolu slide baa ngi noonu page bi ci topp a ngi nii mooy amendement bi that each Congress will deal with amendments. So basically, this text will grow every five years. In this meeting on the 17 We also discussed some final amendments to the text, and some of them had. ci suñu waxtaan bi nga xamante ne ni amal nañ ko waxtaan nañ ci ay amendement yoo xamante ne ni mënul ñàkk ngir mën a dëgëral suñu association bi am na yeneen yoo xamante ne ni il faut ñu gën cee waxtaan bala ñu ko adopté ah, bu ko ngeen di gis nii. conquer the actual formalization of this core organization thank you so much tey jii suñu suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi nekk wego dinañ ñu dimbale bu baax ci ci ci waxal ñu lan mooy amendement bi nga xamante ne nii voté nañ ko I can um, the constitution is a living document and will require amendments time to time. Please... bi nag mooy dafa ay amendement yu nekk ci biir yoo xamante ne ni moom la ñu wane noonu mooy ay amendement yu am solo yoo xamante ne ni nga xamante ne dañ ko war a adopté three of them have been approved and are as follows xamante ne ni juróom-ñeenti organisation la ñetti nangu nañ ko d'accord nañ ci ñun ñëpp mission with states constitute uh, ne ni bala ñoo bala ñoo nangu adopté eh, document boobu ñun ñëpp dinañ xool work and its recognition and in pursuit of public policies that alliance bi dina fexe ba tey ji képp kuy liggéey ci mbalit mi ñoom ñooy doon sa doole di la défendre di xool sa àq ak sa yelleef fépp fuñ ko mën a ñu taxawalee ko ci àdduna bi yépp The Executive Council may expel or suspend any member organizations by citing the reasons included in Clause uh, 5.2. We did not read the Clause 5.2. You can have a look at the document and sort of clarifies that. There was a special. bu uh, fekkee da ngeen a bëgg lu gën a leer mën ngeen a xool document bi nga xamante ne lépp mu ngi ci biir nga xamante justice bi nga xamante ne moo war ci ñëpp nga xam ne nekk. am na droit laaj ak xam ak yelleefam tey ji loolu la ñuy bëgg a dëggal nga xamante ne ni nga xam ne dañuy dañuy joxe suñu àq ak suñu yelleef ñu dëggal ko ba ñëpp ñëpp jot ci Any such decision will have to be ratified by Congress in its next sitting. A suspended or expelled... bépp décision boo xamante ne nii far nañ koo jël il faut Congress bi nangu ko ba pare. With documentation and proving its continued eligibility to be a member of the member organization of the alliance until the decision of the congress in addition to this linguistic nuances to show gender sensitivity were also requested by colleagues from mali in french names same was also approved few amendments will require some detailed discussion and the committee shall be reconvened to discuss those amendments all other amendments introduced but not passed are going consultation, debate, pragmatism, and consensus will be in place to make the elected Congress. Thank you. Eduardo. I'm sharing the slides. I'm just gonna try to show the picture the Mala, Caro Mala Eduardo, mangi jemo one slides here. Because it gives the floor also for, Sally. There you go. This is the picture wow. with the live with the live constitutional and nice faces there. comme ça sali dina yu manqué am na ay nit ñu manqué manqué mais Gracias, compañeros Carolina, Kadir y, Pablo por mostrarnos un poco del proceso que se dio en esta constitución. Sobre, Carolina, Pablo. Eh, claro que es un proceso. ci li ngeen ñu expliquer ne constitution bi niñ ko niñ ko tëggee ak uh, amendement yi ci def muy wone que ni liggéey bu am solo def nañ ko ci. de puntos que todavía no han quedado acordados, así como entender que, Donc, cómo vamos a continuar. bi mooy suñu texte bu mujj mais nag war nañoo liggéey ci ay points yoo xam ne waxtaanu ci. ñu ngi jox. ñu ngi jox suñu kàddu sali ñoom dinañu wax point point yi ñu waxtaane yi ñu d'accord ci suñu global suñu commité bu mujj ba moom mi ngi bokk ci fédér moom mooy président euh, récupérateur yu Argentine fédération de récupérateur yu Argentine jërëjëf jërëjëf ñëpp maa ngi sant ñëpp di leen sargal ci liggéey bi ngeen may ma ma ma tudd ma ma tudd dëkk dëkk yi adopté constitution bi le 17 avril 2022 noonu Inde Bangladesh Népal Mali Nigéria Bénin Niger Guinée Togo Ghana Sénégal Burkina Faso République démocratique du Congo Kenya Mali Afrique du Sud France Canada États-Unis d'Amérique Canada that are represented in Red Lacre Ecuador pays représenté wu ci Red Lacre Équateur Mexique Uruguay Honduras Nicaragua Nicaragua El Salvador Salvador, Brazil, Brazil Colombia, Argentina, Argentina Chile, Chile, Panama, Panama, yeah, Bolivia, and the Dominican Republic. Eh, Republic, Republic Dominicaine. The prospective affiliates present at the adoption session. Ah, session bu euh, the nañ ci point yi ni toward autonomy. Pour, pour, pour nous rendre autonome, donc l'alliance Which donc, will affirmer qu'on peut. Process donc, the next steps. Euh, Second, to establish an acting working committee in November and December of this year to organize two things. First, the affiliation process, that is, to verify prospective affiliates and to recruit and vet new prospective affiliates. And the second is to organize the elections procedures. That is the procedures that are needed in order for the elective Congress to take place. The Global Advisory Committee will meet in person in February in Africa to discuss operational issues to then begin planning for the elective Congress to be held in Buenos Aires, Argentina in November of 2023. WIGO will continue to support this process as we have in the past, as the process moves forward, always keeping the objective of an autonomous and independent organization at the center of our efforts to support. So now to say a few words about the elective Congress to take place in Argentina in November. I invite uh, Sergio Sanchez, the president of the host organization FACIR of Argentina. a todos los compañeros y compañeras, tanto como recicladores como también anfitrones. La verdad que desde acá, desde Argentina, nos sentimos muy contentos todos los países del mundo piensen una realidad y una lucha que nosotros construimos en conjunto con todo el mundo. Y hoy agradecer por confiar que en la Argentina se pudiera hacer este gran congreso, donde sin más de decir que hay una experiencia muy importante de organización y de lucha para que este gran encuentro sea una cosa fantástica para todo el mundo y que cuando hablamos de los recicladores y hablamos de de toda la organización que uno presta para un servicio, es decirle que más que tener la experiencia en Argentina, cuando siempre pelear por los excluidos, no solamente los excluidos de nuestras ciudades, sino por los excluidos también del mundo y con esta gran alianza global podemos llevar adelante algo muy importante en conjunto con todos. La experiencia de todos los compañeros recicladores y las experiencias que tenemos desde acá, desde la Argentina, es más que decirles a todos que podemos hacer un gran logro y un gran cambio en el mundo del reciclado. Y como siempre hablamos, que somos una parte fundamental del medio ambiente, es decirle gracias a nuestros compañeros recicladores Abdul. Gracias a nuestros anfitriones. Abdul, I cannot hear you interpreting? You tell me to let you continue, but I didn't hear nothing since then. Eh, Abdul. Queridísima organización que hacemos todos los días peleando por los excluidos y como gran mensaje. I send you a message on WhatsApp.

Muchas gracias a Sergio y a la compañera. Eh, gracias a Sergio por abrir las puertas de, de su lugar para, este gran evento el próximo año, en noviembre del próximo año. Gracias, Sergio. ci invitation bi ñu invité te ngir yombalal liggéey bi nga xamantane ni bu ñu koy def ngir tëj session bi nga xamantane ni ci lañ nekk ni ñu woon leen ay ay message yoo xamantane ni jot nañ ko ci ci président wu UNEA ak euh, liggéeykat yi nga xamante ne ñu ngi ànd ñu ñun di liggéey ñu ngi gërëm ñëpp nga xamante ne ni jël nañ seen waxtu ngir mën a bokk ci ci réunion bi ak yombalal giñ ko yombale tey ji ñu déglu ci message de solidarité message yu dimbal ak message yu encouragement yi nga xamante ne ni suñu partenaires yi envoyé nañ ñu ko nañu nañu nañu seetaan vidéo bi léegi nii te delsi dama leen bëgg a ndokkale yéen ñëpp ci liggéey bu am solo bi ngeen di di liggéey jot naa ay mbëggeel yu bari ak jàmm ju bari nga xamante ne ni tey ji maa ngi nuyu sama sama mbokk yépp di leen di ndokkale bu baax ci liggéey bu sol am solo bi nga xam ne def ngeen ko ak Global Red nga xamante ni recycleur yi bu jumaan yi liggéey ci mbalit mi yépp ñu ngi ci sama mbokk liggéeykat yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen di ndokkale yéen ñépp ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ne def ngeen ko ci secteur bi ñuy liggéeyee xam naa ne at mii di ñëw di ngeen ñëw ci Argentine ñu ngi leen di xaar bu baax te di leen di di leen dalal ci ñëw bi ngeen nar a ñëw at bii di ñëw ci Argentino jërë ngeen jëf man la man la Esteban Castro eh, ñu ngi may woowe El Greenwich Castro man maa nekk secretaire généralu euh, association bi di UTEP nga xamante ne nii tey jii damay profito ci daje bi ngir féliciter leen ndokkale leen ñëp ci li ñu bëgg a taxawal muy congrès bi nga xam ne taxawal nañu ko pour suñu constitution bi ñu ngi gërëm ñëpp ci tabaxal bi ngeen tabax ci amal bi ngeen amal constitution suñu suñu expérience moom ñuy wan nañu suñu association bi dañ ñoo yàgg discriminer dañ ñoo yàgg suufeel suñu àq suñu yelleef kon nag tabax bi ñu nar a tabax tey constitution bi nga xamante ne ñun bi ñuy tàmbalee créer suñu mouvement bi du ITEP eso el aporte a la organización gremial de conjunto de trabajadores. nga xamante ni bi koy créé ñu liggéey ci mbalit mi yëpp ñoo doonoon suñu doole ñoom ñoo ñu dimbale ba ñu mën a taxawal association boobu nga xamante ne ni tey jii liggéey boobu ñuy liggéey dooli na li ñuy am ci wàllu koom-koom ak alal nga xamante ni dañ daan na yokk suñu doole. nga xamante ne tey ji liggéey boobu na ba kenn ku si nekk am si jàpp di ci dimbale sa bopp di ci dimbale sa njaboot ndokkale ci amal bi ngeen di amal associ alliance bi nii di alliance bi wër àdduna képp ci képp kuy liggéey ci mm, mbalit mi ñun suñu association bi mu ngi mu ngi représenté juróom ñetti téeméer ak ñeenti nit yoo xamante ne ñu ngi ci association bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di di leen di yónnee mbëggeel gu bëri ak jàmm ju bëri ak nuyoo ju bëri nga xamante ne tey jii dañoo bëgg a boole suñu doole nekk benn ñun ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci mouvement informel yëpp di liggéey nga xamante ne nii am na ay jafe-jafe yu bëri yu ñuy xaar ay mbir yu bëri yoo xamante ne nii war nañ koo am nga xamante ne moo nekk suñu kanam ñu war ko xeex muy xeex boo xamante ne dañoo bëgg a doole suñu doole ñun ñëpp ñu bokk ci pour xeex bi gën a yomb nga xamante ne ni mouvement bi nga xamante ne ni ay liggéeykatu informel la ñu nekk ci secteur informel nga xam ne dinañ fexe ba dinañ xeex suñu àq suñu yelleef nga xamante ni képp kuy liggéeyee comme ñun di nga am protection comme nga xamante ne liggéey ci àdduna bi yëpp am nañ ay protection nga xamante ne ñu am suñu benn àq ak yelleef nga xamante ne ni dinañu mën a réaliser suñuy rêve ak suñuy mbébét fépp fu ñu mën nekk ci àdduna bi sama mag yi ak sama rakk yu góor yi jigéen yi ñu ngi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di ndokkale ci occasion bu rëy nga xamante ne ni moom moom la am nga xamante ne ni muy muy mbir mu am solo trop trop trop nga xamante ne ni dañoo nekk ci liggéey bu rëy nga xamante ne ay at ñu ngi ci tey ji ñu war a amal loo xamante ne nii mooy jëmmal suñu liggéey boobu noonu nga xamante ne man tey ji dama cee kontaan di wane ne ñun li ñu doon liggéey mu ngi am ay ay fruit nga xamante ne tey ji mën nañ wax ne coono biñ doon son yépp tey ji am na njëriñ def nañ ko muy tey ji ñu am benn constitution boo xamante ne nii day lëkkaloo ñiy liggéey ci mbalit mi yépp ci àdduna bi yépp ci wàllum social ci wàllum culturel ak ci wàllum politique nga xamante ne ni dinañ mën a booloo ki fépp foo mënti nekk ci àdduna bi ñu jéem a saytu nan lañ lay jàppale nga xamante ne ni tey jii moom la ñu war a amal ci tey jii ci daje bi nga xamante ne ñu ngi daje ci internet bi war a waxtaanee muy doon ñun ñu ngi leen di tàllal suñu loxo ñun tamit ñu yaakaar ne ñun ñëpp dinañu bénéficier wu ci constitution bi ak si alliance internationale bi nga xam ne dëkk yëpp a ci bokk ngir jëmmal liggéeyu euh, ñiy liggéey ci mbalit mi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp sama rakk yu góor yeeg yu jigéen ñi sama mag ñu góor ñeeg yu jigéen ñi ak waa global rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di jox suñu cofeel ak suñu mbégte di leen di di leen di yónnee tey message boo xamante ne ni message bu solidarité la ci tey nga xamante ne ñu ngi nekk ci samedi Spanish in the English channel. ngi jégalu espagnol la ñuy déglu ci ci eh, fi nga xamante ne ñoo ngi fa war déggu anglais kon damay tàmbalewaat vidéo bi ngir ñi ñi dégg anglais mën a jot ci tradition anglais bi waaw ah, ñu ngi nuyu ñëpp suñu rakk yu góor yi suñu rakk yu jigéen ñi te di am mbégte mu rëy ci bis bi nga xamante ni tey mooy tey ji moo ñu dajale muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci deux mille vingt deux ci weeru octobre nga xamante ne nii dañuy dem ci kanam dem ci futur mooy li nekk ci suñu kanam muy organisation boo xamante ne bu am doole la boo xamante ne nii day doon réseau bu mag bu ëmb àdduna bi yépp nga xamante ne ni kenn ku si nekk liggéey bu baax bi nga xam ne yaa ngi ko doon liggéey ci sa dëkk ci wàllum mbalit mi tey ji mu gën a am doole mu gën a am solo ndax ñun suñu liggéey bokku na ci li nga xamante ne mooy setal àdduna bi ndax mbalit mi képp ku koy for di ko saytu di ko di ko di ko trier di ko di ko defar yaa ngi bokk ci ñiy defar àdduna bi yaa ngi bokk ci ñiy defar dund gi kon suñu liggéey dafa am solo lool kon tey ji lii ni am mbégte la ab célébration la boo xamante ne nii tey dafa soxla ñu saytu suñu wàllu wérgu yaram ak suñu sécurité ñun ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci mbalit mi ndax su ñuy liggéey liggéey bi ñuy def dafa am solo ci communauté bi ñuy liggéeyal ci environnement bi ak li ñu wër kon nag dañu war a sàmm ñu ñun ndax suñu liggéey dafa am solo lool jot na tey ji organisation yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi jàppale ñuy liggéey ci mbalit mi tamit ñu xam ñun suñu solo nan la toll ndax liggéey bu am solo la ñuy def kon nag dañoo war a am protection sociale maanaam tey jii bu ñu feebaree mën a faju bu ñu soxlawee ndimbal ñu ndimbal ñu parce que liggéey bu am solo bi ñuy liggéey euh, solidarité bi nga xamante ne nii moom lañ bëgg a jëmmal si suñu biir alliance bi moo nekk li koy li koy fenneel jërëjëf Ferimat session thank you very much uh, um, uh, the chair Sheni and the speakers and the great ah, jërëjëf jërëjëf ñu wax boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp bu baax a baax a baax tey ji ñu jox kàddu gi Samuel Lecœur nga xamante ne nii moo jiite association récupérateur bu Île-de-France ak Marseille ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp seen teewaay ak seen patience waaw xam nañ ne toogaay bi métti na ñu ngi gërëm ñëpp bu baax a baax Uh, kon ni ngeen ko gisee xam ngeen ne jéemu ñoo suux trop ci ci texte bi nga xamante ne moom lañ bind ci constitution bi uh, ndax am na lu bari loo xamante ne ni war nañ ko mën a waxtaanee uh, um, waaw ñetteelu pàcc bi nag nga xamante ne ni Samuel Lecoeur moo ko nar a def moom ma xamante ne ni mooy nu ñuy mën a defaree suñu tay nu ñuy mën a defaree suñu tay moom mi nga xamante ne ay at ngi nii ñun moo nekk ah. président wu association des récupérateurs BIFIN bu Île-de-France ak bu Marseille association bi tuddu Amélior moom mu ngi Paris mu ngi Paris ci France Samuel ñu ngi lay bàyyee kàddu gi Merci beaucoup, merci Lucia, merci à. à jërëjëf jërëjëf Lucia ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi gërëm ñi nga xamante ne ñëpp wax nañ xamante ne jël nañ kàddu bi ñu tàmbalee ba léegi muy muy kàddu yoo xamante ne ni kàddu yu kàddu yu am solo la. afin de protéger les droits des travailleurs et notre environnement. ngir mën a c'est une évidence qu'il est urgent ay ay possible au gaspillage des ay ay gëstu wane na ne quatre-vingt pour cent ci matériel yi nga xamante ne ñu ngi koy recycler ci àdduna bi tey ji recycleur yi liggéey ci mbedd mi ñoom ñoo ko mën a ama tey jii ñi nga xamante ne dañoo organiser wu ñoo def deux dis pour cent yi ñi nga xamante ne amuñu organisation quatre vingt dix pour cent yëpp ñoom ñoo koy liggéey kon loolu muy liggéey bu am solo boo xamante ne tey jii dañoo soxla ay ay politique ay ay ay programme yoo xamante ni nii dañuy boole boole ñu ci fépp fu ñuy tànnee tey jii ñu ngi nekk ay ñaar fukki million liggéeykat yoo xamante ne dañuy liggéey ci mbalit mi waaye amuñu recommandation amuñu amuñu ndibal kenn respecté ñu amuñu amuñu dara kenn reconnaître ñu kenn joxuñu suñu àq ak suñu yelleef développement de métier essentiel fexe ba nga xamante ne nii ñun am li ñu bëgg structure dinañ ñu ko bàyyi xel ñii gouvernement bi dinañ ñu xel nit ñi dinañ ñu bàyyi xel foog nañ ne tey jii ci suñu liggéey bi nga xam ne dafa am solo loolu moo tax ñu war a xam ne dañoo am dañoo war a am benn organisation bu dëgër boo xamante ne nii dina mën a saytu suñu àq ak suñu yelleef Nous avons parlé de tout cela de nombreuses fois lors de rassemblements comme ceux de l'UNEA. waxtaan nañ ci lu bari ci suñu àq ak suñu yelleef ak lan lan moo ñu war a am bi ñuy ci ci ndaje yu bari yoo xam ne COP la EPR UEA nga xamante ne nii suñu baat ak suñu dund ci àdduna beeg yëpp fépp fu ñu dajee wax nañ ko mais tey jii dafa jot ñun ñu waxal ko suñu bopp nga xamante ne tey jii dañuy boole ci c'est vrai que ci ci fi nekk chaque jour bët bu set ñu ngi waxtaan plus grandes institutions ak nan la def ba nit ñi xam liggéey bu am solo bi ñuy solo tey jii li nekk suñu kanam mooy ñu fexe ba tey suñu suñu mbootaay yooyu mu doon mbootaay yoo xamante ne nii day wër ci àdduna bi waaw dañ maa ngi dégg beneen beneen wëy ci suuf waaw kon ni ma ko waxee rek musuñoo musuñoo bàyyi di xeex di di waxtaan di di fexe ba nit ñi xam suñu liggéey solo bi mu am solo te fexe tamit ba ñi nga xam ne ñu ngi liggéey comme ñun ci association bi ñoom it ñu am mm, am ay sañ-sañ ba xam seen àq ak seen yelef ba seen dund mën soppeeku ci liggéey bi ñuy liggéey waaw kon ñu ngi ñu ngi jox uh, kàddu gi Soledad ak Taylor Solidar mi nga xamante ne ni moom moo nekk président wu association nationale recycleur yi euh, bi nekk Chili asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bu baax sama sama naataango yi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bu baax a baax di leen di ndokkale bu baax tamit nga xamante ne ni tey jii xam ne fexe ba amal alliance boo xamante ne ci àddina bi yëpp la loolu muy mbébét boo xamante ne ni la woon nga xam ne bëggoon nañ ko nga xamante ne ni loolu ñu bëggoon yóbbu nañu fépp ci àdduna bi suñu suñu suñu naataango yi nga xam ne ñu ngi Afrika ngi Afrique ñu ngi Inde ñoom ñëpp nga xamante ne nii liggéey nañ liggéey bu am solo ci tey jii fi ñu jëm nga xamante ne nii tey àgg nañ foo xamante ne ni musuñu xalaat ne mën nañ fa àgg nga xam ne tey tey jii suñu daje bi sax ni am na ñu bari ci ñun ñoo xamante ne musuñoo ne yaakaar ne dina am nga xamante ne tey jii ñun dañoo nekk kàddu di waxal ñu bari ñoo xam ne ñu ngi suñu ginnaaw te kenn mënu leen a gis te chaque jour bët bu set ñuy liggéey liggéey bu am solo nga xamante ne nii tey association bi mu ngi commencé ci golo ci Colombia la commencé di dem ci àdduna bi yëpp ba tey mën a amal tey lii nii nga xamante ne tey jii su lii amee ci lu njëkk ñi nekk ci mbal mi yëpp dinañ mën a am foo xamante ne nii fu ñuy waxee ci àdduna bi yëpp fépp fu ñu war a décider nga xamante ne ñun dinañ ci bokk mujeres que nos inventamos este trabajo y salimos a la calle. ñu wane ñan la doon ñu nekk benn groupe góor ak jigéen yoo xamante ne nii eh, kenn mënta comprendre li ñu li ñu liggéey ci ginnaaw ak fépp fu ñu mën nekk ci àdduna bi comme Nairobi nga xamante ne nii foofu interpretaran de lo que nosotros estábamos transmitiendo en ese lugar. nosotros no buscamos. dañoo bëgg ñëpp xam liggéey bu am solo bi liggéey ak ñun lan la ñuy lan la ñuy représenté ci société bi bëgguñu ku ñu yërëm bëgguñu ku ñu sarax li ñu bëgg rek mooy ñu nangul ñu solo bi suñu liggéey am solo ñu nangul ñu suñu àq ak suñu yelleef nga xamante ne ñu liggéey bi ñuy liggéey dinañ ñu ci respecté suñu famille respecté ñu ci mais tamit ñu mën cee yor suñu njaboot dundal leen ci. ba am ci statut boo xamante ne nii dañ koy jàppee comme liggéey yépp ci àdduna bi tey ji nga xamante ne liggéey bi ñuy liggéey ci plastique bi nga xamante ne dafa am solo lool tey ji bi ñu nekkee Nairobi fexe nañ ba ba nga xamante ne nii ñi nga xam ne ñoo nekk Nairobi muy gouvernement wu Nairobi fexe nañ ba nga xamante ne nii politique bi ñu taxawoon ci plastique bi dañu cee boole recicladores de nga xamante ne ni tey jii bu ñuy bu ñuy def ay loi ci wàllum plastique fexe nañ ba tey jii ci Nairobi fu ñuy tànnee décision ñu boole ñu ci ñun ñi nga xamante ne ni ñun ñooy for plastique yooyu ci mbalit mi nit ñi di sànni tey dañu booloo te booloo boobu ñu booloo dafa am solo lool. nga xamante ne tey jii représentant yi ci àdduna bi yépp biñ fa dajee li ñuy ñaan mooy ñu reconnaître ñu ñi nga xamante ne muy góor ak muy jigéen te jigéen ñi doon ñi nga xamante ne nii ñoo gën a néew doole ci liggéey bi ñuy liggéey nga xamante ne nii chiffre yi wane na ko comme Sénégal fexe nañ ba. incidir muy nañ tey jii ba Sénégal tamit nga xamante ne nii ndaje ba fa njëkk am nga xamante ne day waxtaan ci wàllum loolu fexe nañ ba ñu boole ñu ci boole ci liggéeykatu Sénégal yi te tey jii tamit yemut foofu rek yem dem nañ Nairobi duñu yem foofu fépp fu nit muy forkatu mbalit muy recycleur fexe nañ ba tey jii fu fu ñuy tànnee décision lu jëm ci wàllu mbalit bi ñu jëm cee boole association wala mbootaay bi nga xam ne moom li jëm ci loolu ci dëkk boobu tey jii dañoo war a fexe ba ñu am ay start yoo xamante ne nii dinañu ci boole mais start yoo xamante ne dañuy amal njëriñ ñun ñi nga xamante ne nii ñooy liggéey ci loolu at bu jot Somos los que de alguna forma u otra hemos garantizado una economía sustentable y una economía circular en cada uno de nuestros países. Y eso era importante. ci dëkk yi nga xamante ne ni yëpp eh, am nañ association ba nga xamante ne ni fexe nañ maa ngi gërëm suñu suñu collègue yi nga xamante ne ñu ngi nekk Africa wala India nga xamante ne lii liggéey bu am solo la ñuy liggéey te ñoom fexe nañ ba tey baat bi ñu am ci institution yu mag yi ñoom yombal nañ ko ndax liggéey bu am solo bi ñuy liggéey te li ñu bëgg tey jii mooy ñu gën ñoo reconnaître te am na dëkk yu bëri yoo xamante ne lii tey jii association yi am nañ seen kayit gouvernement bi reconnaître na leen association yi reconnaître na leen ñiy ndimbal aussi reconnaître ne ñii liggéey bu am solo la ñuy liggéey te loolu los recolectores somos los recicladores. dëgg la ne am na loi yu bëri yoo xamante ne ni ñu ngi koy tab def ci dëkk yu bëri ngir bëgg a génne liggéeykatu recycleurs yi wala buujumaan yi ci prise de décision yi mooy fi ñuy tànnee tey jii loolu moo war a tax tey ji ñu xam ne ñu am benn association alliance bi ñu nar a bind looloo tax mu am importance mooy fi nga dëkk yi nga xamante ne nii tey jii ñu ngi fexe exclure kat yi nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ay at tey ji ñu bàyyi ba lépp sotti ñu bëgg leen dindi bëgg leen génne ci fa ñuy tànnee looloo tax li ñu nar a créer tey ji am importance parce que dina tax ba tey ji dëkk boo xamante ne nii ñu ko jiite jéem nañ fexe pour dindi fa liggéeykat ci mbalin mi ñu fexe taxaw xeex loolu ba loolu bañ a am tey jii moment bu historique lañu am moment boo xamante ne nii sedd xol muy loo xamante ne dañ ko nar a bàyyi muy benn ndono ndono boo xam ne ndono bu am solo lañu ñu war ko bàyyee suñu doomi mooy liggéey bu am solo bi ñu liggéey at yi ñu sonn jafe-jafe yi ñu am métit yi ñu am nga xamante ne ni tey jii muy bis bu njëkk nga xamante ne tey jii waste skipper yi muy ñii liggéey ci malit mi ak fépp fuñ ci mën nekk ci àdduna bi ñu dajee tey ngir boole suñu doole doon benn alliance bu mag a mag a mag muy alliance internationale loolu moment bu rëy la moment bu bu am solo la te man dama cee kontaan dama cee kontaan lool lool lool nga xamante ni moo tax tey jii sin los recicladores de base hemos establecido nuestro lema como nga xam ne tey jii d'accord nañ ne amul tey dootuñu nangooti benn décision ñu koy jël ci wàllu mbalit mi recyclage ak lépp te boole wuñu ci te boole wuñu ci liggéeykat yi yi nekk ci ci ci national boobu dootuñ ko nangooti tey fexe nañ tey jii ba dootuñu nangooti ñuy jël ay décision ñuy jël ay ay sart ak ay loi te duñ ci boole ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbalit mi ay at ba tey ñu mën a am ay yeneen association yoo xamante ne ni état bi wala ñiy jiite ca réew moom ñoom ñoo ko fa tabaxal de cuidar a nuestro planeta le quiero dejar ahora con ustedes a Taylor lii dafa doon loo xamante ne nii si la ñuy dund muy suñu liggéey mais tamit si la ñuy mën a aaree àdduna bi kon suñu liggéey dafa am solo torop jërëjëf yéen ñëpp ñu ngi kontaan bu baax ne ñu jéem a fexe jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax which is a policy or practice in which companies or producers take more responsibility for the end of life management of their products or packaging. léegi nag ñu dem ci ci tolof tolof yi ak jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom moo am by catalyzing privatization liggéey bi ñuy liggéey nga xamante ne ni mu ngi tàmbale ci 2018 ba tey ji concern in 2018 when, at an exchange of the Alliance in Argentina, a new mandate was launched for us to explore EPR and its impacts on waste pickers. This started with a working group. muy benn benn nga xamante ne benn ndaje boo xamante ne ndaje liggéey la ndaje jokkalante ndaje wecco xalaat la nga xamante ne nii ñu ngi ko amaloon muy APR e e mu ngi noonu APR e na ngi nii nga xamante ne nii dafa am ay euh, recherche ak euh, production ak participation ak packaging ak waste management mooy mbalin mi nan lañ koy saytoo ak paquet paquet nan la ñuy àmbale yeneen demande yi mooy ñu fexe ba lépp leer yaa aussi ñu intégré ñëpp ci biir aussi ñu fexe ba e képp kuy liggéeyee ci mbalin mi mu am payoor bu baax ak protection bu risque amee bu tolof tolof amee te aussi ñu fexe ba li ñuy jokkalante mu leer wax ji leer ñu fexe aussi ba utal ñu ay formation tamit ñu fexe ba am ay partenaire ak ay financement nga xamante ne nii bu ñu bëggee liggéey financement yi day gën a yomb waaw ñu jox Samuel Leke ci solidarité boobu nga xamante ne moom la ñu bëgg a amal jërëjëf Tyler ci foog naa dañuy xoolaat beneen vidéo bala ñoo bala ñoo tàmbale waat suñu waxtaan ci ci wàllu congrès bi ñu seetaan benn vidéo te ñëw Dear waste pickers, dear friends, human dignity is the greatest value we have in common, and integral human development is the ideal everyone. yéen ñi nekk ci mbalit mi foog naa ne ndimbalante mooy mooy mbir mi gën a am solo ci nit ñi mooy ñu respecter sa dignité foog naa nit ku nekk amul lu ëpp solo loolu te ñi ñu jiite ak suñu économie dafa war a soppeeku parce que li sopp yéen la Pape François waxoon ne And indeed, it is in such peripheries that the church was born. dëgg la ne tey église bi ak li wër église bi mu ngi màgg di soppeeku kon tey jii leen ba seen dignité bu leen ko kenn xañ fexe leen tamit ba ngeen ñaan yokkute fexe leen tamit ba ngeen booloo ngir soppi su ngeen bëggee ne da ngeen a am moral ak ngëm-ngëm da ngeen di fexe ba li ngeen di liggéey ci àdduna bi ngeen fexe ba ngeen defaraat ko nu ngeen koy defaraatee mooy ngeen yamale ngeen fexe aussi ba bu leen beddi kenn bu leen sonal kenn mais ngeen def seen liggéey comme ni mu waree tey jii liggéey bi ngeen di liggéey dafa am solo lool nga xamante ne dafay fexe ba ngeen doon benn njaboot bu bees jërë ngeen jëf ndokkale ci loolu église bi mu ngi leen di jàppale bu baax a baax a baax mu ngi seen ginnaaw yàlla na leen yàlla jàppale jërëjëf mbégte mu rëy la ak honneur bu rëy rëy man ci man ngir bokk ci seen ci seen congrès bi nga xamante ne tey mu ngeen ko amal nga xamante ne nii ñun ñii man mi nga xam ne maay président UEA 5 nga xamante ne nii dañ d'accord nañ te jàppale nañ bu baax a baax ci négociation yi ci waxtaan yi nga xamante ne nii am na ci liggéeykat yi ak représentant yi nga xamante ne ñoo nekk ci a àdduna bi yëpp nga xamante ne ni ñooy liggéey ci mbalit mi muy union yi collectif coopérative yi yëpp tey ji ñun ñu ànd ak yéen bëgg ànd ak yéen ci liggéey boobu nga xamante ne ni dafay fees dell ci àdduna bi ñëpp dañ ciy bokk solutions that we make sure their knowledge and experience is brought into the tey jii nga xamante ne da ngeen a bëgg a dajale ànd ak ñun ci liggéey boobu ñu xool ay solution yoo xamante ne dina mën a yombal liggéey bi nga xamante ne transition mooy soppi bi nga xamante ne nii dañ ko war a def mu nekk transition bu baax transition bu yemale ñëpp transition boo xamante ne nii day boole ñëpp ci biir du beddi kenn a ah, ñun nag ñu ngi encouragé bu baax di xool di di kontaan lool ci nga xamante ne nii tey jii ñi liggéey ci mbalit mi yëpp bu njëkk ci économie bi xëy na dañ leen a beddi woon doon nañoo xamante ne ni amuñu woon sañ-sañ ci lu bëri waaye tey jii ak li ngeen nar a di nañ fexe ba fépp foo xamante ne nii fu ñuy décider la muy surtout ci wàllum plastique bi nga xam ne plastique bi eh, day loo xam ne day yàq environnement bi lu bëree bari te yéen liggéey bi ngeen siy liggéey am solo lool ñun tey jii ñu taxaw pour jàppale leen pour wan leen ne leen ñu ngi seen ginnaaw te lépp lu ngeen soxla ci ndimbal rek ñun taxaw nañ suñu association bi man mi nga xam ne maay président bi ngir jàppale leen ci ci ci loolu nga xamante ne tey jii ñu ngi jëm ci benn traité bu am solo mooy traité boo xamante ne nii ci wàllu xeex wàllum plastique ci biir suuf si ci biir environnement bi kon loolu seen participation da cee am solo lool ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax ci ci taxawaay bu am solo bi ngeen taxaw. Après ces vidéos, je remercie et nous remercions Taylor. bi bi bi vidéo bi jeexee bëgg naa gërëm bu baax a baax a baax euh, Soledad ci présidence présentation bi nga xam ne moom la def tey nag ñu ngi jox kàddu gi Amira Xalabi moom mi nga xam ne mooy coordinateur Wigo fii ci Afrique. moo nekk aussi bokk ci équipe bi nga xamante ne ni mooy jàppaleel Gorobaar rek mu ngi nekk Sierra Leone suñu paree ci Amira ñu jox Kalsum Begum moom mi nga xamante ne mooy secretaire généralu union bi nga xam ne moo jiite eh, ñiy liggéey ci mbalit mi ci Bangladesh. Il y a beaucoup de problèmes donc une pensée de solidarité pour Kulsum Begun. foofu nga xamante Bangladesh tamit am na. ay problème yu bëree bëree bëree bëri collecteur de déchets de Ouïghour en Afrique et soutien à Global Rec qui vous nous présenter ñu jox kàddu gi Amira mi nga xamante ne ni mooy coordinateur Ouïghour fii ci Afrique ak aussi moo bokk ci équipe bi nga xamante ne ni mooy dimbale Global Rec rek much, Samuel. Uh, to start, since 2009 till, uh, till today, our demand uh, and position for climate change. bala ñaa tàmbale nga xamante ne tey jii eh, li li jaaxal ñëpp mooy changement climatique bi nga xamante ne ni moo xew ci dëkk bi tey ñu doon ci waxtaan ci COP 21 bi nga xamante ne mu ngi amoon ci mille neuf cent deux mille deux mille quinze nga xamante ne ñu ngi ko amaloon ci Paris ci weeru mars events and climate change uh, uh, nga ñoo jox uh, beneen beneen beneen image bi waaw cli changement climatique bi comme comme li ngeen di gis noonu ci ci écran bi lii lay lii lay indi mooy ay ay inondation ay taw yoo xamante ne nii day yàq dëkkuwaay yi tey li ngeen li ngeen gis noonu mooy tey ji ñu fexe ba ñiy liggéey ci mbalit mi ñu ñu ñu nangul leen seen seen seen liggéey en tant que ay environnementaliste maanaam ñoo xamante ne seen liggéey dafa am solo lool ci wàllu environnement ndax dina tax ba yàqu-yàqu yi am ci environnement bi yëpp du am waaw loolu nag tey ji am solo ci changement climatique bi waaw maa ngi jox euh, kàddu gi Kalsum jërëjëf man maay Kalsum Began man nag euh, ab daw làqu laa boo xamante ne nii euh, changement climatique bi moo tax ma daw তার ভিতরে আমরা হলাম উপকূলীয় এলাকার লোক বিভিন্ন এলাকার থেকে xamante ne ni bala naa bula dañoo dem dañoo nekk ci ci ci benn sën boo xamante ne ni mu ngi nekk ci àll bi seen bi tudd Dakar ñun ñi changement climatique bi moo tax amatuñu dëkkuwaay amatuñu suuf suñu bayee amatuñu fu ñu dëkk amatuñu kër ndax taw bi nangu na suñu kër yi amatuñ internet mënuñ sax woote téléphone ndax euh, cyclone bi nga xamante ne nii moo dugg ci suñu suñu suñu suñu dëkkuwaay তারপরে গাছতলাকে যে যেখানে যেভাবে মাথা গোজা ঠাই পাইছি সেইভাবেই আমরা বসবাস করি তারপর আমরা ফেকুñu fi dara lépp ndox mi yàq বাছাই যাচাই করা ওইগুলো আমরা করে moo waral আমাদের changement climatique bi moo tax tey ji jafe-jafe bu nekk ñu ngi koy dund শীতে কনকনা day tàng wala wala mu sedd guy আপনাদের সাথে tamit day taw taw yu métti yoo xamante ne nii তারপরে রাস্তায় উঠে bu yàggul dara rek taw na taw bu metti boo xamante ne nii amuñu fu ñuy laaxatu dama mujj dem ci mbedd mi ngir mën a ut fu ma mën a ngànnaayoo ndax taw bu metti boobu noonu te bu taw bi passé dañuy feebar bés bu set ñu ngi feebar ndax changement climatique boobu noonu তারপরে শুকাইলে আবার ফিরা মশা মাছি পোকা মাকড় এগুলার যন্ত্রণায় থাকতে পারি bi nga xamante ne ni mooy am ak mbalit moomu day tax ba tey ji feebar façon feebar bu nekk day am ci ñun feebar bu nekk toujours ñu ngi feebar bu set ñu ngi feebar feebar bu nekk dañuy dal ndax ndax loolu mooy muy choléra biir buy daw tout le temps suñu biir yaa ngi daw suñu dund daal metti na lool lool lool lool heure bu ñu xëyee ñu ngi yaakaar ne feebar bi ñu feebar tey danañu rey ndax ndax sonn ah nii daal lañuy dundee dund bu métti métti te loolu li ko waral mooy changement climatique bi দেশটারে সচল করে রাখতেছি যে mi lañuy liggéey dañuy dañuy collecté mi bët bu set dañuy recycler tamit শহর আমরা যেটা বুঝি সাতটা শহরের ভিতরে আমরা ngi ci সবচেয়ে বেশি juróom ñaari dëkk ci fii ci বাংলাদেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেও রাখি আবার আমরা সবচেয়ে মূল কাজটাও করি আবার আমরাই ভুক্তভোগী এটা তো বুঝাইলাম এই যেন আমরা suñu liggéey am na solo loolu mën naa ne si liggéey bi ñuy liggéey moo আমাদের এই যে solo ci dund bi ñuy dund tey কষ্ট আমাদের করতে হবে আমরা লড়াই সংগ্রাম করে আমাদের জীবন jafe-jafe kenn faale wuñu kenn gisul suñu jafe-jafe kenn gisul suñuy coono ñu ngi dundu bis bu nekk rek ak lay xew ñu ngi liggéey ci mbalit mi ak jafe-jafe yu bëree bari bëree recycle eh, ñu ngi ñu lu ëpp ay junney junney plastique te buñ ko buñ ko recyclé buñ ko recyclé tamit ñoo koy génne ci ci ci mbedd mi dañuy dañuy dañuy পৌঁছাইতে পারছি আন্তর্জাতিক ভাবে দেশব্যাপী সারা আর আমরা এই কাজটা দেরি হইলো শুরু করতে পারছি এক হব সবাই সংগ্রাম করে আমাদের অধিকার আমরা আদায় করে নিই সেই জায়গায় আমরা পৌঁছাইতে পারতেছি xalaat naa ne lii nii ñu nar a taxawal dinañu dimbale ñun bu baax a baax ndax ñu dimbale ngir ñu mën a wax li nga xamante ne nii mooy suñu jafe-jafe nga xamante ne bët bu set ak jafe-jafe bu bees te kontaan naa torop torop torop torop torop yéen ñun ngeen di liggéeyal mënumaa mënumaa bég lu raw bég bi ma bëgg tey ndax gëm naa ne ñun ñun ñoo ci nar a gën a bénéficier wu ndax bët bu set jafe-jafe la bët bu set problème la bët bu set jafe-jafe la ci suñu dund fi mu ne nii ñun il faut ñu ñu trouver ay solution ci dund bi ñuy dund ndax dund bi ñuy dund métti na lool te li ngeen nar a taxawal nii ñun ngeen nar a jàppale ndax jafe-jafe rek lañuy am ñun si suñu fi ñu nekk nii মূল্যায়ন কাদের হচ্ছে যাদের গাড়ি বাড়ি আছে তাদের হইতেছে আমাদেরকে কাজের বেলা কাজ করায় শেষ বেলা ফেলে দেয় আমাদের কেন কেন ফুলালুñu কেন reconnaîtreñu du kenn amuñu benn recommandation ci ñi ñu jiite ñi ñu jiite joxuñu benn cër বিশ্ব আমরা ওই স্পিকার আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা চাই যে সবাই যেন এক হয়ে xamal ne ñun tey jii ci sama kàddu ak ci kàddu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi nekk ci union bi ñun ñi nekk ci mbalit mi tey jii nañu joxante suñuy loxo xeex suñu àq suñu yelleef ndax dëgg bi mooy kenn joxuñu cër kenn faalewuñu waaw বোঝাতে পারছি সেটা হলো যে আমরা এখন একত্রিত আন্তর্জাতিক ভাবে আমরা একটা সম্মেলন করতে পারি man mën naa ne sama dund gi yëpp maa ngi koy xeex heure bu ma xëyee rek xeex la kon tey nag kontaan naa bu baax a baax a baax man gëm naa ne congrès bi dafa nar soppi suñu dund looloo tax ñu toog fi tey ndax suba suñu fi suñu suba dama bëgg a dolli tamit benn mbir এক ব্যানারে কাজ করতে হবে দাবি করার জন্য আদায় করার suñu doole ànd ànd bañ a tàkkalikoo ngir xeex suñu àq ak suñu yelleef আঙ্গুল বাকাইতে হইব সেই জায়গায় mu nekk rek ay kàddu yu ñuy jokkalante na doon liggéey boo xamante ne nii dañ koy liggéey ñun ñëpp loolu laa bëggoon a wax ne tey jii suñ ma joxee kàddu dinaa ko wax yéen ñëpp ngeen xam ko ne ñun ñoo mën a jàppale suñ bopp jërëjëf man maa ngi nekk Dhaka ci Bangladesh jërëjëf jërëjëf yéen ñëpp kontaan naa ah, jërëjëf ci ci li ngeen ma dimbale ba ma mën a jël kàddu tey wax ci bis bu am solo bi Uh, what uh, we are looking at uh, and we want to say to the world is that uh, the real integration of waste speakers and the climate change discussion and the climate change adaptation and mitigation. Change finance that is accessible to all waste speakers MBOs. the global alliance or the bëgg a xamal nekk rek ñi nekk fii ñëpp ak eh, képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci kii bi ne am na benn traité boo xamante ne nii ci changement climatique bi bi ñuy amal COP nga xamante ne mu ngi fi and we'll continue working on that for the coming years. Coming Finally, the COP27 place this year in Africa and our continent. Uh, mu nekk loo xamante ne nouvelle bu ma leen bëgg a wax mooy COP 21 bi ren bi dina dina dina am tey ci Afrique ren dina am ci Afrique mu doon lu am solo we will take this floor to repeat and insist that uh, recycling without waste picker is garbage thank you very much tey jii loolu noonu dinañ fexe ba kàddu bañ ñu fay jox dinañ fexe ba xamal ña fa nekk ne leen recyclage ak euh, liggéey ñiy liggéey ci mbalit mi dafa am solo lool lool lool lool lool ñu jox leen seen ak seen yelleef dana dimbale bu baax changement climatique jërë jërëjëf jërëjëf euh, Kalsum jërë jërëjëf Amira yow tamit ci ci leeral yi nga leeral ci changement climatique bi nga xamante ne nii tey jii travaille dans des décharges. comme c'est nga xamante ne tey jii seen yi euh, nga xamante ne ñu ngi fay tour mbali yëpp ak fépp fu mënti nekk ci àdduna bi muy Afrique Asie ak Amérique centrale nga xamante ne ni pour qu'elle nous parle de la fermeture des décharges et la transition ñu ngi ñu ngi jox kàddu gi Eva mi nga xamante ne ni mu ngi nekk euh, Africa moom mi nga xamante ne ni moo nara a waxtaan ci eh, nga xamante ne ni dañ ko war a tëj ci ci South Africa jërëjëf jërëjëf ñëpp maa ngi tudd Eva Eva Mokoneyo ah, man maa jiite association bi di eh, nekk Afrique du Sud waaw maa ngi bëgg a wax ne ñun ñu ngi am foofu noonu ñeenti ñeenti sën benn bi mu ngi tudd Robinson Dip Maria Louise Ender Daal ak groupe Kopi ñett yi dañ leen a tëj te li ñu wax ne ñu tëj ko bëri na li tax ñu tëj euh, mbëbës yooyu mooy ne dafa am ay sécurité ay problème mu sécurité ak ay problème mu violence moo tax ñu teg ko discrimination and loss of income they are not equipped with infrastructure take into consideration am na sax benn benn jigéen bu nga xamante ne ni ñàkk na doom ji mu ëmboon ndax violence yu bari yooyu am koo xamante ne ni yóbbu nañ ko hôpital te ci ñun la doon liggéeyee ndax problème violence yi nga xamante ne nii moo doon am ci sën yooyu noonu ci South Africa ñi liggéeye ci mbalit yëpp bëri ak recycleur yëpp dañuy am problème ci violence ci seen wérgu yaram ci seen discrimination te tamit li ñuy am ci xaalis dafa néew lool lool li ñu doon am sax amatuñ ko te tey seen yooyu nga xamante ne dañuy tuur mbalit mi amul équipement amul dara amul infrastructure amul dara amul toilette comme foo xamante ne nii bu ñu liggéeyee ba dinañ fa mën a dem defi suñu besoin ay toilette yoo xamante ne nii dinañ mën a gannaayoog yooyu amut fa ndax des fois dañuy liggéey ci bis bi yëpp su ko defee duñu am fu ñu toilette amuñu dara ci ci ci seen yooyu ñuy liggéey waaw loolu mooy suñu suñu problème jërëjëf jërëjëf Eva yow mi nga xamante ne ni yaa ñu wax ci jafe-jafe yi ngeen di am ci yéen ñi liggéey ci sen yi foofu noonu ci South Africa ñu ngi jox kàddu gi Nora Padilla nga xamante ne ni mooy président wu association nationale bu collecteurs yi nga xamante ne ni ñooy ñooy ñooy jër mbalit mi foofu noonu ci Colombie Nora Nora mën nga wax jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm sama participar junto con todos lool man Nohra si daje bi ñu daje tey nga xamante ne ni daje nañ tey am na ñetti million forkatu mbalit yoo xamante ne ngi liggéey ci àdduna wërngël këpp te tey ñu ngi kontaan.

te bi ñuy reconnaître suñuy liggéey bi dina ñu jëriñ ñun waaye dina yëriñ suñu njaboot gi nga xamante ne nii li ñuy liggéey ñoom si la ñuy dund kon tey jii loolu ni muy mën a amee mooy ñu utiliser suñu suñu kàddu suñu baat nga xamante ne tey jii dañuy dañuy reconnaître suñu humanité tey jii suñu àq ak suñu yeleef foog naa ne kenn munu ko munu ko wax te fañ ko war a waxee ku ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci loolu bët bu set di xam jafe-jafe yi ñuy dajeel ak coono yi ñuy daje te tey jii li ñuy li ñuy li ñu nar a fi ñu nar a jëm njëriñ li du ñun rek ak suñu njaboot mais ëllëg ñi nga xam ne dañuy ñëw avant ñun te nar a liggéey ci mbalit mi ñoo war nañ leen a tegal loo xamante ne tey jii dinañ am dinañ fi fekk ay ay ndëgërlaay yu dëgër yoo xam ne dinañ mën a def seen liggéey nu mu gën a baaxee kon dañoo soxla ñu reconnaître suñu liggéey reconnaître suñu statut dañoo war defar suñu liggéey nga xamante ne nii dañuy liggéey ci condition yu baax yoo xamante ne nii dañuy respecter suñu dignité ñu am aussi matériel yu baax yu ñuy liggéeyee nga xamante ne tey jii économie dëkk bi ak fépp fu ñu mënti nekk ñun dañ ci war a bokk ci li koy doxal dañoo war a garantir tamit que ne li ñuy li ñuy am mu ñëw ci suñuy poos nga xamante ne liggéey bi li ñuy liggéey dañuy dañuy am condition yu baax yu nga xamante ne nii téeméeri million wi téeméeri million yi ñuy liggéey ci mbalit yépp kenn ku ci nekk di gis sa bopp ci liggéey bi ñuy ñuy jël foog naa mënatuma mënuma guddal ndax li ñu am ci waxtu bariwul mais li ma bëgg a wax rek mooy ñu fexe rek tey bii ba fépp foo xamante ne nii ci àdduna bi ñu ngi ciy décidé di xool suñu àq ak suñu yelleef ñu boole ñu ci ñun ñu am fa baat am fa taxawaay ndax tey jii suñu amee problème ci changement climatique li li ko ëppoo mooy ni ñuy ni ñuy saytoo mbalit mi ak euh, boole bi ñu boolewut ci fa ñuy tànnee fa décidé loolu mooy indi problème bi nga xamante ne nii tey jii moom la àdduna bi di jànkonteel ci wàllu changement climatique nga xamante ne ni jaww ji ak ak ak climat bi dafa soppeeku bu baax a baax a baax a baax a baax kon tey jii pour bu ñu bëggee progrès am il faut ñu reconnaître ñu te loolu liy mën a am mooy tey jii suñu congrès bi nga xamante ne dañoo taxawal benn plateforme boo xamante ne nii dañuy doole wante dañuy dimbale wante dañuy jàppalante nga xamante ne nii li ñu bëgg dinañ ko am kon nag maa ngi gërëm ñëpp nga xamante ne ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mën a amal tey congrès bi nii nga xamante ne nii mu ngi tàmbalee depuis ca 2016 ba tey nga xamante ne heure bu ñu xëyee ñu ci yokk leneen di ci yokk ay formation di ci yokk ay ay waxtaan nga xamante ne heure bu nekk ñu ngi koy jéem a defar ba mu gën a baax nga xamante ne suñu àq ak suñu yeleef ñu ngi koy gën di bàyyi xel pour ñun pour suñu njaboot ak pour suñu dëkkuwaay jërëjëf waa ñu dinañ continuer di xeex ñun ñépp ñu boole suñu doole xeex ngir suñu àq ak suñu yeleef jërëjëf jërëjëf ñu ngi ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm ñëpp bu baax a baax jërëjëf ñu ngi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp bu baax a baax a baax Eva Solidate Santi bëgg naa leen wax tamit jot nañ benn message solidarité bu am solo boo xamante ne nii mu ngi jógee uh, uh, uh, jot nañ message bu am solo boo xamante ne ni mu ngi jógee ci um, waa maa ngi bëgg a jox kàddu gi santi Nebal mi nga xam ne mu ngi nekk Nepal nga xamante moom mooy with the uh, nga xamante ni moom mu ngi nekk Nepal uh, nga xamante ni moom moo jiite ñi bokk ci alliance bi yépp santi ñu ngi lay bàyyee kàddu gi jërëjëf waaw sant ñu ngi lay dégg ndax yéen a may dégg waaw man la sant maa ngi dëkk Népal आमन्त्रित अतिथिहरू महिला तथा ma jiite programme bi nga xamante ne ñun ñi bokk ci alliance bi yépp suñu suñu invité yu yu ñaawul yi góor jigéen ñu ngi nuyu ñëpp sucks. Uh, some dinner sucks. Some dinner sucks too. हर महिला कामदारहरूको हर महिला कामदार स्वास्थ्य सफाइको वातावरणको ci turu ci ci turu équipe bi nga xamante ne ni moo organisé li maa ngi leen di proposé benn vote boo xamante ni ni ci occasion bu am solo bi tey ji muy loo xamante ne ni ñun ñëpp kenn du ko fàtte képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci mbalit mi doo fàtte bisu tey bi mu nekk benn bis bu am solo nga xamante ni ñun ñi kenn ku si nekk liggéey nga liggéey bu am solo ci ci wàllu santé publique dëkkuwaay environnement ak ak euh, koom-koomu sa fi nga dëkk nga xamante ne ni dañuy dañuy promouvoir euh, ressources yi maa ngi gërëm bu baax a baax a baax ñi nga comité bi nga xamante ne ni ñoom ñoo bind constitution bi constitution bu am solo bi daje bu mel ni du daje boo xamante ne ni dañuy xëy rek ne nañ ko def am na liggéey bu nekk ci ginnaaw bu am solo kon nag ngi gërëm équipe bu nga xamantane ni ñoo def liggéey boobu ci ginnaaw maa ngi maa ngi fi teewal association bi ñuy wax Samankunta Safey Garatan muy association boo xamantane ni mooy association bi ñu njëkk taxawal ñu liggéeyee ci mbalin mi ci Nepal ñu ngi ko tabaxal ñu ngi ko ñu ngi ko amal 2013 euh, mars 2013 pur nga xamante ne ni dañuy reconnaître te aussi dañuy xam suñu liggéey ñun ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci mbalit mi suñu mission nag ak suñu mbébét créer association bu mooy ñu fexe ba boole suñu doole ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbalit mi te fexe aussi ñu boole képp koo xamante ne ci liggéey boobu ngay liggéey ci Nepal ñu boole ñu ci benn réseau boo xam ne dañuy xàcceendoo di dóorandoo nga xamante ne ni suñu booloo dinañ mën a kaas suñuy droit dinañ mën a laaj suñu dignité ñu delloo ñu ko maanaam suñu àq ak suñu yelleef ñu reconnaître ñu en tant que ay liggéeykat te association boobu ñoo ngi ko tuddoo Samihunta Safai Garatan Saving muy association bu am solo Sassa Dia ñu ngi ko mu ngi mu ngi mu ngi dugg ci alliance bi mille 2021 te tey ji ñu ngi bëgg a wax suñu suñu kontante nga xamante ne ni bi ñuy dugg ci association bi dalal biñ ñu dalal ak yaakaar bi nga xamante ne dolli waat nañ ko ci suñu liggéey ñuy gërëm association bi bu baax ak alliance bi bu baax a baax ci dalal giñu dalal ak boole gi ñu boole seen bopp ngir ñu mën a boole suñuy doole di xàccandoo ak di dóorandoo waa li may jeexalee nag mooy lu am solo mooy dama bëgg a gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi fi ak ñi nga xamante ne ni ñoo accepté suñu invitation ba teew fi tey jii ci teew fi nga xamante ne ni du lu yomb parce que day laaj waxtu yu bari ak ay ay problème technique yoo xamante ne dañu koy rencontrer ak connexion ak ay machines yi ñuy connecté ñu ngi gërëm ñëpp ci effort yooyu ñu def ngir mën a teew di jeexal maa ngi sant bu baax ñu bokk ci alliance bi yëpp ak suñu xarit yi ak suñu àndandoo yi ak organisation yi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ba ñu mën a taxawal constitution bu congrès bu 2022 nga xamante ne ni loolu mbégte bu rëy la rëy la te ñu ngi gërëm ñëpp bu baax a baax tey ji बाबूजी 2022 lay ki ki war a wax anglais soyo nañu jàppale mu wax parce que interprétation bi ñu nekk ci ginnaaw mënuñoo xam li li sant di wax waaw bu ñu bu ñu mënee bu mënee xool waaw ñëwaat na ñu ngi gërëm ñépp bu baax a baax a baax muy mbégte mu rëy nga xamantane ni tay ji dajee nañ ci ngir a amal li léegi nak maa ngi leen bëgga présenter kenn ko xamantane ni ko am solo la nga xamantane ni moo nara tëj ndaje tay bi muy Mira Caderdi mu ngi nekk ci association jigéen ñi nga xamantane ni ñooy liggéeyal seen bopp te ñu nekk India moom mooy directeur euh, du sécurité social bi aussi moo jiite jiite fédération coopérative boobu Miraay Miraay waaw ñu ngi lay jox kàddu gi nga nga tëj nga tëj euh, congrès bi waaw Mira Mira ñu ngi lay déglu धन्यवाद Shanti maa ngi maa ngi nuyu ñëpp sama rakk yi ak sama mag yi sama naataango yi ak sama yu góor yeeg yu jigéen ñi ci ci daje bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi ko def en ligne ci internet bi ñu ci ci turu Wigo waa Seva Sisters yi ak man ñu ngi leen di ndokkale bu baax a baax a baax ci suñu xol lañ ko tubee di leen di wan suñu solidarité bu baax a baax ci organisation bi ak suñu organisation bi xam naa ne yombul ñu d'accord ci ci ay baat ci continent yu bokkul dëkk yu bokkul ak contexte yu bokkul waaye def nañ ko tey nag tey nag ñu ngi ñu ngi gis changement climatique bi nga xamante ne nii moo am ci àdduna bi nga xamante ne nii na ay million wi nit ci àdduna bi gën kaa ñi ci gën a sonn mooy jigéen ñi jigéen ñi nga xamante ne nii dañuy liggéey ci secteur informel bi kon tey ji jot na climat boobu noonu wone yoon wi nga xamante ne nii ci recyclage dañuy fexe ba suñu planète bi ñu saytu ko aar ko ba nga xamante ne nii dinañ fexe ba li koy yàq ñun ñëpp ñu fexe lu koy xeex li ñuy xeex nag mooy suñu suñu àq ak suñu yeeleef ci ci koom-koomu réew yi ñu dëkk ak aussi ci koom-koomu àdduna wërngal këpp bi xam nañ ne ñiy liggéey ci mbalit mi ñu ngi bokk ci liggéeykat yi ñu gën a ñàkkal solo ci àdduna bi ñi nga xamante ne ni amuñu benn statut du koom-koom du social loolu nag la ñuy xeex tey te xeex bi tey dañoo bëgg ñun ñëpp ñu bokk bu ñu boole suñu doole dinañu am ndam bu baax a baax yaakaar naa ne dina dinañ jéem a continuer di tabax ay coopérative ak ay mbootaay nga xamante ne fii tey mbootaay yooyu dañuy saytu suñu dundin muy góor muy jigéen ci fépp foo mënti nekk ci àdduna bi ñu ñu mel ni ay mag ak ay rakk yoo xamante ne dañuy boole seen doole ngir mën a tabax àdduna bu bees soxla nañ tamit ndimbal boo xamante ne ni dañuy dimbale ci liggéey bi ñuy liggéey ñun ak suñu njaboot yi dañoo war a laaj aussi loo xamante ne ni suñu àq la mooy service public boo xam ne day saytu suñu wérgu yaram suñu dignité ak suñu pas-pas nga xamante ne nii tey jii muy defi bi nga xam ne moo ëpp solo mooy li gën a yaatu ci suñu xeer ñun ñëpp nañu jóg yàlla nañu yàlla dooleel ñu gudd fan te wér jërëjëf waay uh, jërëjëf Mira picture kon tey jii ñun ñëpp nañu taal ñu caméra ngir ñu mën a am benn photo muy photo boo xamante ne photo souvenir lay doon ñun ñëpp ñu bokk ko ñu ngi ñaan kenn ku nekk mu ubbi caméra am ngir ñu mën a def photo boobu noonu muy tëj ndaje bi Oh, uh, And, our, jërëjëf jërëjëf yéen ñëpp kontaan nañ lool ñu ngi sant ñëpp. todos los seen caméra ñu gis leen bu baax ngir ñu mën a am photo photo photo bi tëj ndaje bi muy photo souvenir.

Desde Argentina, Jujuy. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Hermoso momento. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Bravo, bravo. Tchau, pessoal. Obrigada. Mandla, ao eco. Amanda, ao eco. Mandla, ao eco. Todos. Muchísimas gracias por la información. Eh, Lula, Lula, oh, Lula. <laughs> Ah. Lula, Lula, eh. Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula. Brasil mañana. Lula. Asante sana, asante sana, asante sana. Estados Unidos, Lula. Sí. Lula, sí, Samuel. Vamos. Vamos. Los argentineses. Los de Asia. Los de África. Los vienen de Francia. Gracias al equipo de trabajo. Gracias. Vamos. Ricardo, Carla, Gracias, gracias, gracias desde Chile. Thank you. Thank you to all of the members also. Abrazos, compañeros. Abrazos, abrazos. Vamos a ganar. Thank you. Polerita, mi polerita, mi polerita. La próxima ya la estaremos celebrando. Florida Brasil. popular para el mantenimiento. Muy lindo todo. No aguantes. Patrocinadores. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. Ah, Argentina, amor. Guys, I'm leaving. Bye bye. Chao, compañero. Bye. Bye. Bendiciones a todos. Bendiciones desde El Salvador. La presidencia global. Bye, bye, bye, bye, bye. Saludos, compañeros. Felicitaciones y muchas gracias a todos ustedes. Saludos, saludos. La pueden a la vez. ¿Eso que te viste en el primer piso? <laughs> Vale. Ah, todos. Una bien le metió a Avellaneda, todos juntos en el predio, espectacular. Qué lindo. Cuando toca a uno, va a tocar a todos, dile. ¿Viste que acá se me escucha? Sí. Ya, bueno. Gracias, Taylor. Vamos por la ley de envase. No terminamos. Sí. Sí. Le mano y

Reciclando vidas. Señora, cuando fuimos a Panamá, Reciclando vidas. Conseguir un trabalho. Tres días pasó con vos. Uma sociedade construir. Os catadores e catadoras do mundo. Parabéns para todos nós. Lindo congresso. Auxílio! Auxílio! Roxana! Adiós. Chao. Nos veremos. Para, ah, mira, mira. Короче, она и там лежит. Ла-ла. Ba an tura ba za a kawo. Daga wata biyu zan ɗora sabon bayi. Vamos Montevideo! Vamos compas! Obrigado. Obrigado.